Bonjour Yeewu Leen il est presque huit heures désolé du retard mais Yeewu Leen commencé na et comme on le fait d'habitude il y aura les rubriques le programme euh, journalier donc tout à l'heure Ndiaye va nous parler des informations internationales Fama Thioune a un invité qui va nous parler de litige sur des terrains donc c'est c'est quelqu'un qui nous vient de la diaspora d'Italie donc on va parler de de de ces litiges là qu'il y a sur leur terrain et puis on va parler Euh, de santé avec Fatkine Dem mais euh, avant cela elle va nous présenter le journal en français bonjour Fatkine bonjour euh, Bijou bonjour chers téléspectateurs le journal c'est dans quelques instants Merci d'être avec nous euh, sur la télévision Futur euh, Médias. Euh, bulletin d'information que nous démarrons avec l'Union des magistrats du Sénégal qui interpelle le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, concernant le projet de loi sur la Cour suprême. Les magistrats demandent toujours le retrait du texte. Et puis, pénurie de riz, selon les autorités, la situation va bientôt revenir à la normale. 45 000 tonnes ont été débloquées, les 30 000 déjà ce marché avec 15 000 tonnes exclusivement réservées à la ville centre de euh, Touba. Euh, parlant de Touba, justement, les populations de la ville centre euh, tirent la sonnette d'alarme concernant la pénurie de riz et de sucre constatée à quelques jours du Grand Magal. Toutefois, les commerçants se frottent bien les mains avec l'augmentation de commandes d'autres produits alimentaires. C'est un reportage de Pape Faraning et de Morharma à la caméra. de Touba s'approvisionne en marchandises. Le Magal, une période de bernelle pour les nombreux fidèles, boutiquiers et habitants, déplore le manque et la qualité du riz sur le marché. La pénurie du riz et du sucre se fait sentir à Touba. En ce moment, il n'y a que le riz de la vallée. Et ce riz n'est pas comme le riz parfumé. C'est difficile de préparer un bon plat avec ce riz. Pire encore, la pénurie de sucre se fait sentir dans la ville sainte. Nous voulons du riz parfumé pour préparer de bons plats avec des chameaux et des bœufs que nous avons achetés. kër waaw ñoo ngi waajal gan les produits alimentaires envahissent le marché aux cases ainsi que les ustensiles les commerçants se frottent bien les mains car les commandes ont augmenté. waaw fu ñu heure bu xëyee dañuy woote. nous avons augmenté les commandes depuis le début du mois de Safar actuellement les boissons sont très prisées surtout les boutiquiers ils font beaucoup de commandes. borom boutique yi ñooy jënd ko fii ndax li mboolem lu jëm ci benn rek ndax ñu loolu la ñuy jaay loolu baax na muy ci. nous vendons du gage des ustensiles bref tout matériel pour accueillir les fidèles mourides nous les commerçants de Touba on se frotte bien les mains. jaaykatu vaisselle muy jaaykatu alimentation wax dëgg yàlla ñun ñu dëkkee Touba. wax yàlla dañu ñu ci gis suñu bopp baax daal di sant yàlla baax di sant Serigne. à quelques jours du grand magal de Touba les populations restent par rapport à la rareté de certains produits. Pafara Ning, euh, merci. Une visite au pavillon vert euh, pour faire l'état euh, des lieux sur l'avancement des préparatifs de la FIDAC 2016. Le pavillon est à nouveau ouvert. L'administration du CICES annonce des mesures sécuritaires pour éviter d'éventuels incendies. Cher Ndiaye annonce par ailleurs l'indemnisation des victimes du pavillon vert. Aminata Mbaresso. La foire internationale de Dakar s'ouvre ce 24 novembre, l'heure des installations et des réparations dans les stands. L'attraction du jour, le pavillon vert. Et le pavillon vert, euh, pour qui n'a pas, n'a pas été informé de l'incendie, ne peut imaginer qu'ici il y avait un incendie l'année passée. Tout a été remis à l'ordre, la toiture elle est faite, les murs sont repris, la charpente elle les reprise. Et en fait, le pavillon vert est à mesure aujourd'hui d'accueillir un événement euh, d'ampleur de la FIDAC 2016. Un incident s'était produit dans ce pavillon à la en place une équipe de prévention incendie d'une trentaine de personnes, 40 personnes, et ils seront très bien visibles et feront le tour de toute la, de la foire et pour découvrir et prévenir euh, les, ce qu'on appelle c'est le tabac, c'est les euh, fournon c'est les essais d'encens. Tout ça, c'est interdit au niveau de la FIDAC 2016. L'incendie du pavillon vert a aussi fait des victimes, des victimes qui réclament toujours leur indemnisation. L'État du Sénégal, avec les e CICES, sont en train de faire des démarches pour indemniser les sinistrés au plus vite possible. Parce que ce n'est plus une question de droit, ce n'est plus une question technique, c'est une question purement et exclusivement humaine. Et nous sommes tous d'accord sur ça. Et l'État du Sénégal, et le CICES qui n'a jamais lâché les sinistrés, il faut qu'ils le sachent. Les sinistrés n'ont jamais été lâchés par le CICES. Au sein du CICES, les travaux de réparation sont en cours. L'administration rassure, la totalité des travaux est accomplie. La fermeté dont a fait montre le président Macky sal de ne pas fermer l'école Yevou Selim sur demande du président euh, turc Recep Tayyip Erdogan est salué par les dirigeants euh, du groupe. Il compte sur la diplomatie sénégalaise pour ne pas céder, euh, ce qui à leurs yeux est bénéfique pour le Sénégal vu l'apport du groupe dans le système éducatif. C'est un reportage de Mambiram Diouf.

entre des Sénégalais et des Turcs qui sont là. Nous avons confiance au président Macky Sall, qui est un grand président. Nous avons confiance à la démocratie du Sénégal. Nous avons confiance aussi à la diplomatie du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, ici à l'école, nous ne commentons pas les décisions ou bien nous ne faisons rien pour parler des relations entre le président Erdogan et le président Macky Sall. Ce qui se passe ailleurs, prenons la Guinée, où ces écoles dirigées par les sympathisants du mouvement ismite ont été fermées, cela n'est pas du tout applicable au Sénégal, dit-il. Moi, suis convaincu que ce qui se passe en Guinée ne peut pas se passer au Sénégal. le président Condé a fait. Ce qui se passe en Guinée, même nous le déplorons, même si nous le déplorons, ne nous perturbe pas véritablement dans notre travail de tous les jours. Lui et ses collaborateurs, ici le directeur général adjoint du groupe Messout Gohan Ates, pensent aux parents d'élèves qu'ils rassurent d'ailleurs, surtout pour leur confiance. Bien avant même le coup d'État, on a beaucoup parlé, on a beaucoup spéculé sur euh, etc., Mais nous, c'est vrai, chaque fois que des questions là se posent, quelquefois ça nous perturbe. parce que ça nous empêche de nous concentrer sur ce qui fait le corps de notre métier, c'est-à-dire éduquer. Mais aujourd'hui, nous disons aux parents, nous disons aux élèves que rien ne se passe. Ce qui se passe, pour nous, le plus important, c'est ce qui est en train de se passer dans les classes. Le groupe Yavuz Selim, une école bien sénégalaise dans son fonctionnement et sa composition plutôt que turque, selon ses responsables qui voient son avenir Mame Birame Diouf euh, merci le bulletin en wolof euh, c'est dans quelques instants. voilà Fatou merci pour ces informations en français comme ni nga ko waxee bulletin en wolof bi euh, léegi léegi lay doon donc ñu jàll ci avant ñu eggali programme bi ci biir leen. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi ñu tàmbali ko ak mbootaay gi ëmb magistrat yi ci euh, Sénégal ñoom nag kalaame nañu euh, jëwriñ ji dénk wàllu yoon maître Sidiki Kaba mu aju nag euh, ci projet de loi boobee nga xamante ni jëm na ci ay yeesal ñu bëgg ko indi ci cour suprême magistrat yi nee nañ du ci dal lu aju ci texte boobe sax ñu ngi sàkku kon ñu daal di koy retiré na mu gën gaawee ñu wax ci ñàkkum ceeb bi kilifa yi di ci dalal xel yi nee nañ nag lépp dana daal di yemb yàgg yi kon ñeent fukki junni tonne ak juróom sax daal dinañu koy débloqué fanweeri junni tonne yi mi ngi ci marché bi euh, fukki junni ak juróom daana ko yóbbu ca Touba Mbacké euh, lu aju ci wàllu ceeb boobee ca Touba sax nemmiku nañu ni ñàkk na fa suukarit naka noonu te ñu ngi waajal màggal gi ndax aseer ji lay doon loolee nag tax na ba daal ñenn ci commerçant yi di ko fa joytu rawatina ak askan wa waaye lu mu ci mën a doon ñoom commerçant yi ñoom ña ngi koy dabu ji feneen ndax am na ci yeneen commande yoo xamante ni askan yooyu jëfandikoo foofee ci wàlluk lekk loolee sax ñu ne ñoom ñi ngi ci gis seen bopp bu baax a baax leeral yeeg Pape Fara ñi ngi Mor Xarma dëkk bu sell bi di Touba Mbacke lii di marchandise yi tàmbali di fi wàcc màggal gi di jamono joo xam ne dañ ciy berndal gan yi ñii di commerçant yi ak ña dëkkee ca dëkk bu sell ba ñàkkum ceeb bi ak qualité bi la ñuy jooy. ceeb amul Touba suukar amul Touba dëkk bu toni dëkk bu sëñ Touba bi ay toni toni toni ceeb waroon ceeburu saatol bi lañ bëgg mu dugg ci dëkk bi te ceeburu saatol bi neexut ndax mënoo koo togg mu tooy diwlin <laughs> yaa ngi dégg amul boo ko toggee de ndox ba danaa beññ beññeeral ndox la bëgg waaye bëggul li ci gën a doy nag suukar si ñàkk ñu ngi koy yëg ca dëkk bu sell ba temps yi bi ñëw ceeb bu dijj bi ñëw ñuy togg lu neex di ko yekk dëkk bu sëñ Tuubaa bi gileem yaa ngi fi nag yaa ngi fi xar yaa ngi fi amuñu ceeb buñ ko toggee amuñu suukar waaw ñoo ngi waajal gan ñi ñam yi ñu jëfandikoo fees dell ca marché Ocass commerçant yi nag seen bamba maase na ndax commande yokk. waaw fu ñu toll dañuy commandé heure bu ñu xëyee dañuy woote di commandé waaw parce que lu ñëw rek day génnaat ko période bi nii quoi boisson yi mooy gën a kii quoi instant bi waaw commande bi mooy gën a kii daal. non instant yi nag moom borom boutique yi ñooy jënd quoi. fu ñu ndax li mboolem lu jëm ci benn rek ndax ñu loolu la ñuy jaay loolu baax na muy cin kaas yooyu yëpp wax dëgg yàlla ñu ñëw di ko jënd si. dëgg la bu màggal comme li ma wax rek màggal fii bu defee 15 jours bu weeru daal xasee taru ñuy safar ba xasee taru wax dëgg yàlla dëkk bi muy muy muy jaaykatu vaisselle muy jaaykatu alimentation wax dëgg yàlla ñun ñi dëkkee Touba wax yàlla dañu ci gis suñu bopp baax daal di sant yàlla bu baax di sant sëriñ ay fan yu néew rek des ci màggalu Touba bi marché naam ñu ngay fees dell waaye askan wa li ñu ragal moo nekk yenn ci yi nga xam ne moom la ñu war a jëfandikoo gisuñu ko ba léegi ñu di ko jaajëfal Pape Fara ñing ñu nemmeeku ji pavillon vert bu CICES ndax lépp ma ngay yemb ci waajal FIDAK 2016 dañu fa seetlu liggéey ba ñanga ca lu aju ci pavillon vert boobee sax ki nga xamante ni moom mooy euh, administrateur ki yore ki ngànk li nga xamante ni moom mooy CICES foofee di administrateur ba moom nag daal nay wax ni jël nañooy matuwaay ci wàllu ko kaaraange ngir nag mën a ottu la fa amoon muy lakk googe bu weesu loolu itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo lakkale woon euh, ca pavillon vert vert daañu leen tàmp Aminata Mbaye Sow Thierno Laurent Mendy foire internationale bu ndakaaru le 24 novembre lay tàmbali ci biir yi ñuy def ay réparation ak yenn installation waaye pavillon bu gën a attention mooy pavillon vert gis ngeen pavillon vert li gis bët moom du fen gis ngeen ne fii képp koo xam ne nii waxuñu leen ne fii lakk am na fi mënoo xam ci xool ne lakk am na fi ndax yàlla dimbali nañu ci suñu doolee bopp doolee bopp si ses ñu defaraat pavillon bi ba mucc ayib ba mën a recevoir événement. ci biir pavillon bile la lakk gu métti amoon ci FIDAK bu daaw loolee waral atum ren ñu ne dañu yokk mesure de sécurité yi. liñ jàpp ne mën naa indi ak lakk lépp taxaw nañ ci ren ba incha allah bu nu yàlla dimbalee lakk du fi am loola bokk na ci dinañ am. équipe boo xam ne nii équipe prévention incendie lay doon ay nit ñoo xam ne dañuy ànd ak pompiers yi ak gendarmerie yi di xool fépp foo xam ne feu ouvert am na fa. feu ouvert moo di cigarette na bu ñuy ataaya benn ànd bu ñu taal di wane ne sa cuuraay baax na wala baaxul yooyu yëpp fu ñu ko gis dañ koy daal di fay ci tàng tàng bi exposant su bañee ñu dem wooyi. police wala gendarmerie ñu ñëw régler ko. ci lakk googu nag ay exposants yu bëri daal di ñàkk seen i bagage ñooñuy topp ci ginnaaw waa CICES ngir ñu fay leen. état bi léegi nekkatu ci problème mbiram droit nekkatu ci mbiram confrontation mook CICES CICES ànd nag état bi nekk ci mbiram social li leen teg problème social la li leen yàlla teg problème social la léegi problème humanisme la te angle boobu la ko état bi gisee angle boobu la ko CICES gisee. on ne le plus d' assurance on ne parle plus de quoi que ce soit li ñuy wax mooy dimbali leen bañ jotaat seen xaalis te gëm naa ne balaa yàgg dañ jot seen xaalis. ci biir CICES nag liggéey gaa ngi wéy ñu ngi réparé di installé yenn stand yi ñi jiite administration bi ne fi mu toll ni liggéey bi lépp yemb na li ci des faafaar bi ubbi ñu mën ko eggale. Aminata Mbaare Sow ñu di ko jaajëfal ñu wax nag ci euh, école Yeewu Selim ak njiitu réew mi mag Macky Sall lank ne l'école boobee duñu ko tëj fii ak jaarale wuñu ko ci yoon loolee ki ko doon sàkku sax di njiital euh, njiitu réew bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan lu jëm ci loolee ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiitee groupe Yeewu Selim ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax tey nag sukkandiku ci diplomatie sénégalaise mu dooleel leen bu baax a baax ndax ñoom loolee dañu jàpp ni daal teguwul ci yoon yow Selim mi ngi dox nag lu am solo ci njàng mi fii ci euh, Sénégal Mame Birame Diouf la yaa ñafu naa teew ci Sénégal li ko dalee atu 1997 école Yavuz Selim am lu toll ci juróom-ñaari école ci biir réew mi nag liggéeyam bokk na ci joxe njàngale gu mucc ay ayib kilifa yi ko ngànk xamle ko jàpp ni nag benn yoon tëj googee du war a mën a am. c'est vrai que école privée la école privée la boo xam ne ay sénégalais ak ay turcs ñoom ñoo ko moom ah, mais ci ndigalu état Sénégal la jaare ci yoonu wi nga xam ne moom la ñu état Sénégal jaarale foofu la ñu jaarale ba tax na ñun vraiment amuñu njàqare ci loolu. diggante ñaari président yi diggante ñaari réew yi vraiment loolu ñun xam nañ ne président Macky Sall c' un grand démocrate xam nañ ne Sénégal c' est un état de droit xam nañ ne diplomatie Sénégal diplomatie bu rëy la ci àdduna ñoom loolu lañ koy bàyyeel ñoom ñoo war a gérer. diggante relation yi entre ñaari réew yi. li xew bitim réew moo xam ca euh, Guinée foofee nga xam ni sax lekkool yi sympathisant mouvement ismite jiite foofee kon ñu tëj leen loole nag mënta xew fii ci biir réew mi mu xamle ko. Sénégal dafa am cosaan dafa am fu ñu koy xool ci wàllu droit dafa am fu ñu koy xool ci wàllu démocratie lii xew Guinée man en tant que sénégalais gëm naa ne mënul xew Sénégal. ne li xew Guinée naxari nañu trop nag. na xëy rek daal di tëj benn école dàq ña fa woon même ñun en tant que sénégalais comme ni ma la ko waxee on a confiance au président Macky Sall on a confiance à l'état de droit du Sénégal. moom ak i collaborateur am bokk na ci directeur général adjoint groupe bi di Messoud Goxaan Ates di bàyyi xel waajuru ndongo yi. li ñuy wax parents d'élèves yi rek mooy na seen xel dal ndax bi ñu commencé coow affaire école bi yàgg na mais teewul ñun loolu na yëngaluñu ñun sunu énergie. sunu doole ak sunu xam-xam yëpp dañ koy def ci affaire njàng mi pour que ñoom seen doom yi bu examen ñëwee ñu xool ndax ñun waaye Yavuz Selim liggéey nañu wala déet. groupe Yavuz Selim doon ab école gu ñu mën a jàppee kon ni l'école sénégalaise la waaye nawal bu turc ci doxalinam ak it na muy taxawoo askan wi ay njiitam xamle ko jàpp ni ëllëgam nag lu gën a neex lay doon. ñu di ko jaajëfal maam Biram Diouf mbokk yi nit cant ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina gën a yaatal euh, xibaar yi bu 13h jotee lay doon. Pakiné ne dem ak ngërëm ñeel na la yow it <laughs> mais préparer revue des titres en attendant ñu dem Touba comme actuellement Ila Touba la ñu wax ñëpp ngi préparer màggal bi ay oto sax a ngi gaare fii pour euh, ñi nga xamante ne ñoo war a dem ci waa télévision Futur Média xam naa ni ñeneen ñi tamit ñi ngi ci tali bi ñii di oto ñii dugg seen ay oto dem ñëpp a ngi préparer pour dem de ce fait dañuy dem euh, foofu Touba fekk fa Mohamed euh, Jo Diop mu wax ñu lan la moo fa xew actuellement ak naka la ñuy préparer màggal gi allo. oui. Mohamed. waaw. ça va. ça va def. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm na ngeen def maa ngi si yoon bi. waaw ça va ñun xam naa bu ñu paree fii rek dañuy ànd ak ñiy dem nii. ah d'accord di ñëw fekk la foofu Touba. très bien noonu la waaw en tout cas nit ñi ñoo ngi ci yoon bi déjà parce que dëkk bi. Mhm. Euh, mu ngi tàmbalee xataa. Ah. dina xat kay actuellement ñi départ bëri parce que xam nga comme samedi la ku ci nekk da naan damay teel a dem balaa embouteillage yi di ma fekk ci yoon yi xam naa loolu moo tax euh, mu commencé xat mais comme euh, màggal la rek noonu lay demee ñu bàyyi la nga wax ñu li gën a fës ci xibaar yi foofu ci Touba. waaw xanaa tàmbalee foofu yem foofu rek parce que actuellement benn événement moom moo am muy euh, màggal bu Touba bi nga xam ne jàpp nañ ko kon samedi prochain di fukki fan ak juróom-ñeent ci weer novembre jamono ji di dëkk yi di euh, Touba ak Mbacké euh, ñuy màggal si euh, ñoo ngi tàmbalee ñëw di fees dëkk bi animation bi également foo ko takk weesu na ko ndax ñoo ngi takk ay rajo ci mbedd yi di jàng xasaayit di jàng également ay kaamil ci biir dëkk yi ngir waajal li nga xam ne mooy xew-xew boobule ci kilifa yi nag également ñoom ñoo ngi ñëw ndax bu ñu ne màggal kilifa yi Euh, yor nguur gi dañuy tàmbalee ñëw également di indi seen contribution ci màggal bi ah, ci loolu ministre yi mel ni ministre de euh, l'électronique ñëw na fi ministre de l'énergie Thierno al Sall également ñëw na fi joxe assurance par rapport ak délestage yoo xam ne duñ fi am ci biir màggal bi waaye tamit ministère de la santé ñëw nañu fi ni ci démb Euh, également ku wax màggal ne ceeb ba tax na délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale añ na fi ceeb bu bari boo xam ne dañ koy jagleel les familles déshéritées ak ñi nga xam ne amuñu doole nekk ci biir diwaan bu Touba ak Mbacké loolu Anta Sarr Diack mu ngi ko andi teg ko ci loxo ki nga xam ne moom mooy euh, porte-parole xalif général des Mourides di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ñu war koo séddale ñi nga xam ne ñoom ñooy les familles bu weesoo loolu également y a un ballet incessant d'hommes politiques ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa euh, politique yi ñoo ngi doon ñëw euh, di euh, ñëw kon ci ki nga xam ne mooy xaalif général des mourides sàkku ñaan waaye bokk moom également li nga xam ne moom mooy màggal bi ku ci mel ni nit ki démb li ci gën a ràññeeku moom mooy Khalifa Sall ak Ousmane Tanor Dieng daje nañ fi waaye bii ñoo ngi xaar ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall. mu ñëw màggal si moom alxemes ni ki suba kon ci diwaan bu Touba. waaw Mohamed. Mhm. Euh, donc ñu ngi lay jaajëfal ci xibaar yi nga xamante ne moo gën a fees foofu ci Touba j'espère que ceeb bi dina dina egsi avant màggal gi comme ñëpp moom lañuy kaas ceeb moom bu amul xam naa ne yow comme jóobeen nga. <laughs> ay jooy dina nar a jàpp ndax déjà doo leen doyal bu ci doolee ko gan yi gën a ñëw nag ceeb bi gën a manqué damay ragal sax nga am gan ñoo génnee xam nga ci wàllu ceeb boobu sax damay joxe benn information boo xam ne ni ki démb maa ngi doon jox woo téléphone. Uh-huh. ak euh, le chef du service régional du commerce de Diourbel bi Amadou Touba Niane. Uh-huh. mu muy dalal sa xel yow dalal xelu njaayeen yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom kon bëgg nañu màggal si. non ñun du ñu lekk. ne ne ne vraiment benn pénurie ceeb amul ci biir dëkk bi. loolu moom bu amul day metti Fama Thioune nag naan ma mi ngi xiifal depuis lundi pour lekk gëm na la lekk ci màggal ga. yéen yéen daal ñëw leen rek le service du commerce nee nañ fexe nañ ba ravitaay dëkk bi yëpp en en en en riz et en sucre. d'accord du am benn pénurie ci biir dëkk bi ko donc euh, njaay mi bëgg ñëw màggal ci pour lekk ceeb ba suur également ni ko mën a def. kon xel dal na a mais sunu xel dal na comme euh, indi nañ ci ay solution pour màggal gi ak en dehors du màggal ñu lay remercier bu baax bàyyi la nga continuer liggéey bi que ce soit pour rajo bi wala suñu site IGFM aussi. bon et bonne journée. bonne journée aussi donc maa ngi wax que Mohamed Jo Diop ngeen ko déglu ci rajo bi euh, RFM wala ngeen euh, am ko ci site bi igfm.sn ñu xool site bi léegi xool reportage du jour bi lan la parce que dañuy wax tout le temps que si vous voulez vous informer juste et vrai adresse bi benn la igfm point sn foofu ngeen war a mën a dugg pour xool lan moo xew ci Sénégal ak tamit ci àdduna bi tey reportage du jour Touba retrouvailles Tanor xalifa seules les montagnes ne se rencontrent pas donc dugg leen ci sit bi igfm point sn ngeen lire lan lañ ci wax am na yeneen euh, reportage yoo xamante ne def nañ ko yeneen article yoo xamante ne bind nañ ko dugal ko ci biir site bi rien que pour vous informer donc tàmm leen di fa dugg rappeler aussi que yéen ñi nga xamante ne yoroo leen télé nekk à l'extérieur amoo leen abonnement pour seetaan TFM mun ngeen ko xool ci Facebook soit Facebook yeewu leen bi wala Facebook télévision Futur Média ngeen suivre ñu en direct comme si euh, télévision ngeen nekkoon di seetaan Fatkine comme Mohamed jàll na fi ba pare ñu dem ci revue des yi Fatkine Fatkine looy looy de lu xew li kay maa xam li weeree moom man ko c'est tamit dafa ñëw rek bëgg a sonnal ñëpp te dara xewagul Ndiaye li ngay jaabante lan la mel ni ku xew lii fi nga toogoon doy la. kenn mënu kaa wax daal. ku la wax loolu noonu. si kii waa ji zéro yow doo sol mbaxana bi. waaye sol mbaxana bi sonal na la ndax wër nga plateau bi yëpp ci kanam dinañ waxtaan ak yow ci biir yeewu leen bi mais pour l'instant dañuy dem pour euh, la revue des titres donc on commence avec l'observateur entretien avec Aliou Cissé qui revient sur le match Sénégal Afrique du Sud il nous dit ce que je regrette et il a trouvé j'ai trouvé les joueurs un peu timorés euh, moins entreprenants dans la créativité on n'a pas été à la hauteur je suis remonté à bloc. Euh, mi ngi noonu euh, bi ju ni ko waxee yéen kaay bi di l'observateur nag euh, daal di xëy ci ki nga xamante ni moom mooy. Aliou euh, Cissé di entraîneur sunu gaynde yi ak waxtaan woo ñu ba mu sekkaat moom moom Aliou Cissé nag euh, la mu wax euh, moo di ne joxe na daal gis-gisam ci jongante bi nga xamante ni Sénégal doon na ko am ak Afrique du Sud la mu seetlu mooy sunu gaynde yi xawoon nañu tekk tekkaaral daal ci jongante boobee njax la fu ñu lool waaye tamit la mu doon xaar ci ñoom ci wàllu jeu bi nee na loolee indiwuñu ko ba tax na daal maanaam xoolaat na yëfi bu baax a baax ni mu tëddee noolee la l'observateur wax pétrole et gaz dans l'enquête Cosmos Energy affiche ses ambitions mi ngi noonu Cosmos Énergie xam ngeen ni mooy kër googu nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu aju ci wàllug pétrole bi ak gaz bi ci euh, Sénégal wax na nag li nga xamante ni euh, moom mooy yéeneem ci yéenekaay bi di euh, l'enquête ki ko yër bi ci biir it wax na li nga xamante ni noonee la ko gisee waaye wax na itam perte yi nga xamante ni am na ci waaye lu mu ci mën a doon moom am na ay ambition maanaam yéene boo xamante ni am na ko ci pétrole bi ak gaz bi maanaam gën cee liggéey fii ci Sénégal. L'AS revient sur la modification de la loi sur la Cour suprême avec comme titre « Malaise chez les magistrats ». mi ngi noonu magistrat yi xam nga ni dañu lànk euh, ci maanaam coppite googu nga xamante ni dañu ko bëgg indi ci cour suprême ak projet bi ñoom nag la ñu bëgg rek mooy daal ñu daal di koy teg ci suuf lu aju ci réforme boobee ci noonu sax ñoom ñu ngi doon kalaame sax jawriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon di maître Sidiki Kaba yéenekaay bi di laas ci la daal di wax. La même chose dans la tribune mais cette fois-ci euh, elle la présente comme guerre avec comme titre la guerre des mi ngi noonu ni ko waxee rek euh, mi ngi aju ba tey ci wàllu magistrat yi di union des magistrats mbootaay gi ëmb magistrats yi ci Sénégal mu ñeel ba tey ni ñu ko waxee rek euh, projet de réforme boobee ñu bëgg a def euh, ci cour suprême tey ji mu mel ni Fanta Siro daal am na ci diggante waa pale bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ci wàllu yoon. Alors, Quotidien nous parle du maire de Thiès qui veut une liste unique aux législatives avec comme titre tala chante Benno. mi ngi noonu Talla Sylla mooy wax ci yéenekaay bi di le Quotidien moom nag nee na lu aju ci législatives yi ñu dëgmal moom ab liste unique la ci bëgg moom Talla Sylla mu mel ni kon ma ngay euh, way wala boog xalamal bu ñu ko mënee tuddee noonu waa Benno Bokk Yaakaar. Libération nous informe que notre président est l'invité officiel de la France du 18 au 23 décembre avec comme titre Macky tient sa visite d'État. mi fan ak juróom-ñett la jàpp ñaar fukki fan ak euh, ñett ci weeru euh, décembre moom njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaar foofee ca réewum France di àpp euh, nemmeeku bu mu fa war a def yéenekaay bi di Libération ci la wax. Euh, le chef de l'État toujours dans Rewmi audience avec le chef de l'État la communauté tidjane réaffirme son soutien à Macky Sall. mi ngi noonu ak nataal yi ñu ci gis euh, nataalu sëriñ si euh, ñi nga xamante ne nag ñoo bokk surtout ci tarixa tidjane ñoom nag féddali nañu kon seenub kóllëre ci njiitu réew mi Macky Sall mu mel ni kon tey jii lañu ñu gën a taxaw ngir gunge ko moom njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi di réew mi ci la wax. Jour J parle toujours de Macky Sall et le Grand Magal de Touba édition 2016 il titre Touba satisfait avant la venue de Macky. mi ngi noonu euh, Touba daal seen xel dal na mën nañ koo waxee noonu ak euh, ñëw ko Macky Sall foofee jour ji ci la daal di xëy di yéenekaay bi ndax màggal gi ni ñu ko waxee rek aser ji la li tax nag seen xel dal moo di ne njiitu réew mi Macky Sall dafa daal di soññ ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, jëwrinam ñu def seen kéemtalaay kattan ba ku ci ne liggéey ba ñu la sas ca nga matale ko ba mu mat sëkk. Pareil dans Zoom, visite du chef de l'État à Touba, test grandeur nature pour après non essuyé au mi ngi noonu bu ñu ko déggee test grandeur nature nag maanaam mu mel ni kon Macky Sall tey nag lay gën a xam dëgg-dëgg euh, xëy na poids bi nga xamante ni am na ko ca tubaa Mbacké gannaaw ba nga xamante ne nag am na ndam li ci référendum bi euh, foofee ca Touba li waral loolu dafa am ñenn ci chef de village yi ñu taxaw ne ñoom daal euh, dinañ ko xaar naam waaye nag am na loo xamante ne bu dikkee dinañ ko ko wax mu dégg ko ci noppam moom moom réew mi Macky Sall. Le Populaire a fait un dossier sur les immigrés en situation irrégulière en Allemagne, des milliers de Sénégalais menacés d'expulsion. mi ngi noonu ay sénégalais yu bari yu nekk foofee ci Allemagne dafa dund ñoom nag fi mu ne seen xel dalatul ndax dañuy des ca réew ma wala dañuy ñibbi lu mu ci mën a doon yéenekaay bi wax na ko ndax euh, am na sax euh, suma jumulee fanweeri fan euh, ci weeru décembre wala weeru novembre ci lañ leen daal di convoqué ñoom sénégalais yooyu ngir nag ñu xam seen situation mën leen identifier bu baax a baax ngir xam itam ndax dañ leen delloo si am déet ci biir réew mi. inscription sur les listes électorales dans Direct Info tête du ministre de l'Intérieur. moom ni nga ko waxee libéro yi nag lenn képp la ñu bëgg muy jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo ñu jëlee ko fi lañu wax ndax nee nañ lu aju euh, ci euh, maanaam euh, carte d'identité CEDEAO yooye ñoom nag lañu gis ni daal yëf yi am na njuuj njaaj loo xamante ne daal wàllu fraude la ñu jàpp ni am na ci. voilà Fakine lool la ñu fi amoon ci ay euh, journaux nga def revue des titres yi tey nag doo ñibbi da ngay ñëw toogandoog ñun comme ça on va parler de santé euh, wàllum pollution comme ni nga ko annoncé euh, démb. waaw loolu la ñuy waxtaanee muy pollution atmosphérique waaye laata loolu ma dem xool gan gi ndax ñëw na xam nga am nañ ci. waa xool ko jox ko café mu naan sax le temps may joxe météo bi. très bien voilà naan di xoolaale kii nu tudd sa Alfi. Alfi dafa tàmm moo ma jaaxal dem yi ku leen di summi suma journal mi jàpp kaas café bi naan ko nii. dem yi ku leen di summi. te gis na ñëw nañu de. ñun ñu sant Aan Aan. loolu du neexali jën ci bu dee moo la dàqalee ko du la mën a simi donc on a on continue avec les informations cette fois-ci météorologiques parce que li ma leen koy waxee chaque jour rek fan yi dangay yeewu seddaay bi jàpp la ba nga xamante ne pour nga jug sax génn lal bi ñëw liggéey si day metti ndax sanguwaat rek ngay bëgg continuer nelawaat xam naa ne am na ñoo xam ne loolu la ñuy def des en bien ndaxte heure liggéey foog naa ni passé na ñu jàll ci température yi Dakar te yeewu nañ ak 25 degrés Saint-Louis 23 degrés Podor 25 Matam ak Linguère 26 degrés Diourbel 25 Kaolack 24 Kolda 23 Tamba 24 Kédougou moo gën a sedd tey ci suba si ak 22 degrés Ziguinchor 23 degrés après-midi bi température yi dina yéeg ba 29 degrés à Dakar 36 à Saint-Louis Podor 37 degrés Matam 39 degrés Linguère 38 degrés Diourbel 36 degrés Kaolack 36 degrés pareil Kolda aussi 36 degrés Tamba dina am 37 degrés Kédougou 36 Ziguinchor 36 degrés. pour euh, suñu mbokk nappkat yi donc horaire yi nga xamante ne ci la ñu war a gën a mën a demee géej gën a am jën benn bi c'était entre 2 vingt 28 ak 4h28 du matin bi ci topp 14h58 lay nekk ak 16 h boo leen demee géej du ñàkk ngeen am jën yu bëri. Euh, soleil bi def na yeewu leenam à 7h12 euh, du matin il va se coucher à 18h38 bu ñu ñëwee ci marée yi nag marée haute bi dinañ am euh, bu njëkk bi à 9h50 c'est dans quelques instants bi ci topp ce sera à 22h15 marée basse bi benn bi amoon nañ ko à 3h40 du matin beneen bi 15h55 lay nekk. bu fekkee da ngeen yor xaalis bëgg ko wecce ku ñu wax leen taux de change bi fan la toll actuellement un dollar moom tout le temps chaque jour mu changé tey ci 610 virgule 328 francs CFA la toll un euro changé wul 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling 761 virgule 726 francs CFA un yuan chinois mi ngi toll ci 88 virgule heure julli yi suba julli woon nañ ko 5 heures 57 du matin tisbaar midi 55 lay nekk takkusaan 16 heures 12 timis 18 heures 43 gée dinañ ko julli 19 heures 48 bu dee da ngeen bëgg a dem église euh, cathédrale amoon na messe 7 heures beneen bi ce sera 18 heures et demie martyrs de l'Ouganda amoon na messe 6 heures et demie du matin beneen bi ce sera à 18 heures 30 Saint-Joseph église Saint-Joseph dina am messe à 18 heures 30 donc euh, ñu ñëw ci coming next bi lan lañ ñu préparel ci kanam fàtki ne wax na leen ko tout à l'heure pollution atmosphérique lay waxtaanee ak benn invité di docteur Mamadou Ndiaye nekk pneumologue Fama Thioune aussi am na beneen invité bonjour. bonjour ça va. comment vas-tu. nii sonn na gëmmentoo xiif comme Alfi tey moom mercredi ay comment bien manger la lay defal ma mere dañu soxla loolu il le faut. Ah. Euh, salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan alors aujourd'hui on va parler de sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi bitim réew précisément en Italie euh, te dañ leen di escroquer à chaque fois dañuy yónnee seen xaalis fii ci Sénégal euh, ñu jaay leen kër wala ñu jaay leen terrain alors que parcel boobu wala villa boobu mosut a exister dañu constitué wu ñoom benn coopérative bu bu la sénégalaise dañu invité tey le président pour mu ñëw ñu wax ñu seeni tolof tolof lan la ñuy dund foofu ak les projets à venir pour suñu naataango yi nga xamante ne ñoom ñu ngi foofu ci bitim réew. loolu dafa metti faama nga dajale sa xaalis ba muy moom liggéey dajale ko pendant des années. jël ko joxe ko ñu ne la dañu lay jëndal kër nga ñëw gis na effectivement liñ la jëndal existé wu c'est très dur donc dinañ ci waxtaan tout à l'heure ak euh, directeur coopérative bu. Euh, la sénégalaise voilà la sénégalaise dina ñëw tout ci plateau bi Ndiaye yow luy sa coming next ñu ngi yi mbokki téléspectatrices yi. waaw rajo bi di kontaan waaw waaw toog fii ci yow leen. ok d'accord tey xanaa mbégte mbégte màggal gi nag moom la ñu amee xam nga fan yii dañuy waaj a dem màggal <laughs> lu muy li sérieux. dañoo kontaan loolu nag. kontaan nga kontaan eh? ba ci kanamu yàlla feeñ na torop ci yow. waaw xam nga di nuyu askan bi nga moom yàlla. <laughs> ba ci kanam loolooy coming next up euh, Alfie ci kanam di ñu wax comment bien manger mais tey lan mooy sujet bi. sujet bi dama bëgg wax euh, ci kanam bi ju ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu ñi ñuy seetaan. Mhm. ci hygiène aliments yi. maanaam hygiène yi nga xamante ni. ñam yi ñuy lekk wala ni ñu koy préparé ni ñu koy toggee ba ni ñu koy jaxasee maanaam ni ñu koy boolee ci biir bi mm-hmm. tey ci loolu la ñu bëgg waxtaane ci comment bien manger toujours avec les beurres Sofia mais bu bu Cominex bi jàllee dama la bëggoon laaj parce que fa amul ma jot a dégg ci bi ngay jàllale <laughs> météo bi euh, féexu fajar bi nga ni dafay tax boo bëgg génn sa mbàjj Alfi bëgg ngay détail ah, pour nga bañ a génn mbàjj wala leneen la Alfi bëgg ngay détail fi mu nekk nii pour pour ko pour ah, pour je suis frileuse en fait. seddaay bi man maa ko njëkkee oh, avant ah, ñeneen yow féexagul. ñuy sant yàlla ci tàngaay bi nga xamante ni mi ñu koy dindil. nga naan man noonu laa mel. température yi buy changé gisoo fii climat. sa yaram dafay daw daal température bi rek tax mënoo jóg ci bàjj. man bëgguma Alfi. <laughs> c'est que Alfi dëgg bëgg détail. ak la Alfi seddaay bee ma jàpp du loolu laa wax. Ah, looloo am waaw dafa seddagul sedd bu tax daal nga war a. waaw man damaa frileuse damay teel a yegg sedd. Alfi tu connais góor ko buux ba mu sës. tu connais. da lay tëj ci mur bi dinañ réglé détail ginnaaw ba ñu. waaw ba tey baax na mais waa G3M. ah ñu ngi fii pour euh, def sport. aywa indil ñu tey li ñu présenté. ñu dem waaw ah, ñu ànd ak ñoom. waaw dem wax. ñoom luñ tudd sax moo rek nag. G3M Event nga ni coach ambulant yi rek. coach boo ci wax rek naa la coach mobile laa leen. tuddee nga bëgg leen a def ambulant yi nga xamante ne ñoom chaque instant ñi ngi organiser ay événements. ci plage yi surtout. Mhm. et que c'est très cool. parce que am na yoo xamante ne indi nañ ko fi bawoon ñu ko fi. da boo ko xoolee rek da ngay am dem te dañ lay fekk sa kër. defal la sport aussi boo bëggee bien voilà non am na ñoo xamante du ñu mën a dem ci salle salle de sport yi parce que bu ñu demee émeute lañ fay créer parce que ñëpp comme Pape bu demee salle de sport ni ñu koy demee émeute la créer donc ñooñu waa G3M Events dañuy déplacé wu ñëw fekk leen fi ñu nekk mhm. defal leen li gën ci seen yaram bijou moo tax ñu tuddee leen les coachs mobiles mhm. ma ko moo tax ñu tuddee leen les coachs mobiles mën leen leen xool waa ñu dem ñu dem ñu dem paree ci ñu ngi ci nice wuy leen yaay. góob déglu leen. wuy leen wuy leen. góob déglu leen nee na ngeen jug. te ngeen na ngeen jug te def li leen fi andi. loolu de la jaay wax. maire yooyu nekk ngénte la ma jóg di wax raxaskat yi ñu jug. waa jug nañu bi ci kon ñu dem <laughs> doxantu ci li nga xamante ni. mooy euh, jardin yeewu leen bi parce que fii la ñuy defee gym bi gym bi moom ni muy xumbee du xaj ci biir moo tax ñu génne leen ci biti continué nañ leen. mais yéen dafa mel ni yeewoogu leen de wala da ngeen. waaw dañoo yeewoogul mais xam naa ne bu ñu bu ñu tàmbalee rek. dañuy ah. yeew waaw xam naa ne nag waa wàccaay mu tubaab mais yéen ngeen nalawee ñi leen di seetaan nan la ñu war a def. xam nga fi mu nekk dafa commencé sedd te jug di def yeewu gym day xaw a diis fi mu nekk nii waroon na leen fekk ngeen taxaw commencé di étiré wu nga xam ne ñii di seetaan dañuy motivé sax hmm. wala ñu bàyyi leen ak ñoom taxawee si plateau bi rek mat na de mat waaw kon ñu pousse fa te euh, ñu dem ci kanam ñu jàll ci conseil ah sama kii dafa waaw waaw tey dañoo dañoo indi mayo yi. Hmm. bii pour waa yeewu leen la yeewu ah, leen. ah yeewu leen. yeewu leen TFM. bijou yaa gis lii. waaw yeewu leen sunu sunu kii wa ngi nii sunu mayoo ngi nii. Ah, ok xanaa su ma ci paree rek ma jox la. soo paree jox faama. wala yeneen day ñëw léegi nag engagement la. Hmm. comme ni nga ko waxee rek chaque jour dina am kenn kuy taxaw. ah chaque jour kenn kuy taxaw kon nañ commencé ci bijou comme que moom mooy diriger yeewu leen. jeex na semaine prochaine na bijou taxaw. bijou c'est équipement semaine prochaine. waaw mi ngi jox bu ñu kenn dégg nag. waaw ko koy dem jox jeex na <laughs> Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. I just make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Décale, décale, décale, décale, décale, décale, waaw ñëw liggéey ñëw liggéey. aywa Ndiaye aywa D'accord. T'inquiète, ça c'est parce que tu es au lait. Alors on aime tout le monde à être sur la tour. Très bien. Aïe, on ne pas avec lui. Y'a un qui gagne en Avec l'humeur, aïe, c'est parti. On s'est mangé pas hier. Hier, on peut le faire, on peut pas hier. Carrément. Aïe, encore. Yes. Encore une fois. Très bien. Aïe, Très bien. Hallelujah. I say on the blessings of love and they see just to make me shout hallelujah. body. Allez, c'est dans la demeure. Aïe, tout le monde est bien réveillé. Ça se passe sur personality, personality, personality, personality, personality, personality, personality, personality, personality, Au niveau des bras. C'est carrément le sang au niveau du ventre. Un cœur. Troisième. Les débutants, devant de marcher, on va poser les talons. Encore, un, quatre, trois, deux, un, la jambe droite. Allez, encore. Alors, vous le faites tranquille, ça part vite, suivez pas le Avec la main, c'est-à-dire. Encore. Allez, bien, encore une fois. Allez, bien. Allez, bien, encore une fois. On va essayer de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Alors, bravo. Place. éviter les cas de blessure. Il faut réveiller le corps et vous y allez doucement, doucement et progressivement jusqu'au maxi. Excellent. Alors, merci beaucoup, Alfie. Alors, on se dit euh, bon magal. Merci beaucoup. Et on donne le, au téléspectateur euh, rendez-vous après le magal. après le magal. bu ñu kenn fàtte ñaanal. di ngeen magal yi waaw incha allah. Hmm. kon xam nga yéen da ngeen faral di déplacer. alors li tax ñuy dem. waa du ngeen jimloo waa Touba. non non du tout mais am na ñu ñuy xaar. <laughs> parce que chaque jour. mais ragal ngeen dem Touba di fa mobiliser nit ñi. non mais xam nga ak buuxante rek yooyu. Ah. déjà dañuy waroon pare yaram bi dox bi rek donc ak mouvement yi ñuy def foofu rek gym ah. la. sport la donc bu ñu demee foofu dañuy ànd ak gars yi bu ñu soxlaa yenn conseils yi. ñu ànd seeg parce que dañuy woo tout le temps surtout à Touba. d'accord tout le temps dañuy woo dañuy seetaan bu ñu paree émission bi dañuy woo donc am ñu seen fay il nous invite à venir à Touba forcément on doit y mm. donc ñu ngi Touba et on invite tout le monde à y aller encore une fois encore une fois ñuy wax mhm. mhm. euh, ñu defaral leen ci aussi parce que on invite tout le monde à adhérer sur G3M Events ah on vous donne rendez-vous la semaine su ngeen ko bëggee reprendre mën ngeen dugg ci TFM replay a reprendre li boo vous rappelez que Bijou Ndiaye mooy ubbi jàng bi jàng yi semaine prochaine donc Bijou sama yow ma ngoog euh, maa ngi ñëw léegi fekk si ci la ci plateau après après Mado may ñëw après Mado waaw bu jógee congé ah, donc ah, yaay ñëw yow yaay ñëw fekk si waa G3 <laughs> merci beaucoup yow merci à prochaine yéen daan Ndiaye ñëw na tey toj fa ngeen ne bii di ñëw man ngeen bëgg amul benn problème bés bu ma jimee jim jeex indi ñu ne pour que Eh, bi am sama tur am. mais lii daf ma ëpp. xoolal da ngay yii xam nga sooy jeune da nga a sol ah, daf maa ëpp laa lay tegal nii lii kan la war a jot. da ci suuf rek nga teg ko ci. ku mu war a jot bu kon semaine prochaine man maay def semaine prochaine. amul benn problème lu tey Ndiaye def na. maa ko raw dégg ngeen. voilà G G G3M ñi ngi noonu G3M event euh, suñu coach immobilier comme ñu koy euh, waxee seen numéro day jàll bu ñuy def seen gym mais te xam naa ni kenn gymul ndax yow Ndiaye est nii lañ lay bàyyi itam. Eh. kii ay dara nee na gàddu nga àqam bàyyi na la ak yàlla. kii dañoo bëggante woon euh, mu mu trahir mu quoi. ah parce que temps yi déggatuma ko fenn gisatuma ko fenn. bàyyi la bàyyi. très eh gis gis nga sport. Mhm. mooy médicament bi gën ci nit. c'est vrai médecin yi sax dañu koy wax booy sport non doo feebar. Mm. je te jure mm. ngay man si. Euh, yaa tey teel ngaa sonn ni ngay essoufflé moom. ni ngay ni ngay noyyee nii. bon gëjoon naa sport mais commencé woon naa est-ce que su ma la wax benn affaire doo ko gëm. dis-moi mm. man taekwondo laa def. def naa waa ci télé laa nekk def naa ko 96 ba 2008 laa arrêté. sérieux waaw ñaata at la. maa ngi woon dojo jàmbaar bu caaro yi fa ko defee parce que. am na tooñ la erreur la Pape Samba mi ngi lay weddi de. non moom xam na li muy wax sama noonu. yow li ngay wax ma koo wax en nee na. moom xam na nee na. mooy li ñuy ndekkee lu weex li. waa léegi meew yaa ko wax. Pape Samba yal la sama àq dal. amiin. <laughs> yàlla na nga soppeeku nekk pneu camion. yow loolu dina métti ci bi rek ñu door la bal nga peer. ñu ko ñaanal rafetul na. pneu camion la Kër Aïda mi nga naan mu peer wala mu bën pont bu jéggi pont rek mu peer. Pape Samb yàlla nga den ci lu bu ragal seet. yaa ko tooñ nañ de ngay naaw ba ca nga conseillé la fa. yaa ko tooñ a ah, jarul nga naan dugalal gaaw clip yaa ko tooñ. sa bopp bi mel ni xaalu ma noonu. <laughs> ñu jàll ci clip clip. Serigne Touba. dugg leen dox dox dox bu ca dem ñaani ba di waruwaay gàcceel na ja du roppalaante yi duna ku weti laa jël mbër yi ca faas Tuuba Daaru Salaam Tuuba Daaru Salaam Tuuba Daaru Salaam Daaru Salaam xadima gën licence seddu seddu mënul weesu galaas ca jiide way amu fi maas Tuuba Daru Salaam Tuuba ku bëgg rëqadam sa fas te bañ a jaar am daxas ne bëggu loolu la la yépp ñu ngi teewu njaxas ku bëgg raw tànnat sa fas sa far a jar fu am ko xës te bëggul la la xas ay waay yépp ñu ngi teewu njaxas yépp kay kay kay ca France lim la bu kenn mënul xiyaas foo dem ña ngay conférence bamba di dem ku bëgg ray ay ay ay ay ay ay ay yoo oh. taalibe yaa nga Casamance bi le courant fépp la maas magal amul aj bëgg rëppand sa fas sa faa te bañ a am sa xër li bëgg loolu la xas jébbal ji teew jàqas jébbal ji teew jàqas jébbal ji teew jàqas jébbal ji teew jàqas jébbal ji teew jàqas jébbal du ji teewul voilà euh, c'était la page publicitaire instant yi yéen a ngi gis que nii ñoo ngi nekk ci euh, buntu tele bi lii nag mooy euh, waa télévision Futur Média benn partie bi ñiy waaja dem ci màggal gi actuellement ñi ngi noonu di préparer wu di dugg seen ay kaar di dem ñee naa leen de bilaay mënoon ngeen ma xaar donc kaar yaa ngi noonu ci biti ñëpp a ngi préparer dem màggal Ila Touba la ñu wax ci semaine bi yëpp xam naa ne ku ci demagul tamit yaa ngi waaj comme ñun ni ñu ko defee nii Pape Samba mooy image yooyu ñuy wane ci biti tey ñoo jóg dem. ñu sampal ñu ay caméra xaw ma nuñ koy gérer ba def ko direct noonu. wax ma. màggal daa ne loo ni. Mhm. ñii dañu leen war a accompagner ay xasaayit. waaw defal la ah? ayca may ñu benn. bu ko defee na nga naan leen. daw yaram si kër yi day daw yaram bu baax te boo ko déggee sa xel day dem ci Touba café Touba gi sax day commencé di la xeeñ ndax eh, Touba da ngay taamu màggal gi foo romb yi ngay dégg ñuy sikkar ka ngay dem ci jumaa ji ka ngay dox ci mbedd yi ka ngay nekk ci kër yi souvent da ngay gis nit ñi def ay kuréel di jàng xasaayit yu mel nii. Mhm. donc day daw yaram bu baax boobu ñu koy dégg. mooy daf ci am ñoo xamante ni ñëpp la sax wax. Mhm. bu ñu nee tëll ñi dinañ wàcc seen lal. Mhm. dinañ génn seen kër billaahi hospitalité bi dafa garaaw lépp lu ñu am dinañ ko xëpp ci màggal gi. ndax dañ naan ki ñuy lebal. ak mën a fay bor. Mm-hmm. Mm-hmm. da fay ba fay lu la ëpp. dégg naa li ñu ko joxee da wis waaw voilà ku ma defaloo loo mënul ma fay la lu la jom. laay ku ma demal bëccëg ma fay la guddi. Mm-hmm. te kooku daa la jaar lebal muy Cheikhul Khadim maami Basak Baare maami Dana Cheikh Mbacke eh, kookoy waaj. dañu waajal moom donc ñi ñi ñii moom ñi ngi ci yoon bi ba pare waaye Aba Touba Touba naat naa am gan tey en tout cas waa télévision Futur Média groupe Futur Média sax laay wax ñoom ñëpp que ce soit site bi télé bi rajo bi l'observateur ñëpp a ngi fii di préparer wu pour dem couvrir màggal gi ba nga xamante ne lépp lu fa xew dañ leen koy mun a wan comme ni ñu koy defee chaque année à chaque fois que bu cérémonie religieuse amee ci biir dëkk bi dañuy jug def mobilisation dem wan leen yëpp Euh, c' est quelque chose boo xamante ne population bi dañ ko saluer bu baax a baax a baax a baax moo tax chaque année loolu lañ leen di jéem a defaral chaque année ñu ut luñ ci yokk en tout cas man ñee naa leen yéen ñiy dem léegi mais dara dama leen di topp seen ginnaaw laay topp juste après li nga xamante ne moom leen leen bëgg a présenter ci biir yeewu leen bi ñu koy commencer santé parce que la santé avant tout comme on dit et puis fàttali ne tey sujet bi mu indi dafa euh, important torop ndaxte ci pollution bi lay wax euh, ñun ñu ngi koy dund chaque jour mais duñu ci bàyyi xel ndax souvent loo xamante ni ñu ko bët wala sentiruñu ko vraiment duñ ko sóoraale. duñ ko sóoraale bii je xanaa dellu rek di nuyu di nuyu également ñi nekk ci plateau bi di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne eh, ci seen rubrique santé yow leen wax nga ko lu am solo la. pollution atmosphérique la ñuy waxtaanee tey loo xamante ni xëy na léeg-léeg bët dana ko gis waaye am na ci yoo xamante ni bët du ko gis. te pourtant mi ngi lor doomu aadama mm. waaw mi ngi mi ngi lor doomu aadama moom la ñuy waxtaanee tey ji wàllu pollution boobu ni ko waxee. sànq tey tamit dañuy maye paasu màggal 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 woote leen fàttali bu paree rubrique rek damay jël kenn daat koy may paasu màggal bu ko defee ñu continuer dinañ maye fii ba émission bi di jeex n'hésitez pas à commencer dès à présent jël seen téléphone commencer di ñu woo ñu mën leen may paas yoo xam ne moom ngeen di yóbbu màggal fàttali nañu dem ci jël euh, ni ñu ko waxee pollution ba tey waaye bi yoon nag saxaar suy tukkee ci oto yi. Mhm. parce que saxaar yooyu tamit bokk na ci li nga xamante ni moom mooy gën a lor doomu aadama euh, comme ni ñu ko daan baaxoo di def rek dañuy dem seetaan reportage bi ñëwaat sur le bi balaa ñuy jox kàddu gi suñu gan. Ndakaaru soppi xar kanam dem beeg dikk bi naka noonu daamar yi gën a bari lépp di am njeexital ci jaww ji saxaar si jolli. ñenn ñi du dara lu dul wote yi jege ñaar fukki at mbaalu ko ëpp di daw ba tey. y a des cars rapides même oto yu ndaw yi yoo xamante ne am na kenn mënu laa wax ñaata at la ñuy am fii te ñu ngi daw ba léegi yooyu laa mun a wax ne yooyu au moins pop moom nga mun a wax ne ñu ngi sax ñuy polluer dëkk bi. pollution boobee léeg-léeg ñu jiiñ ko daamar yi dugg ci biir réew mi lim gi yokk ba ñaar diggante 2011 jàpp 2012 lu ëpp fukki junni ak ñeent tey ñu naan. ñaar fukki junni ak juróom-ñett. oto yi ñuy indi balaa ñuy ñëw ci dëkk bi ñu koy jëndee foofu dañ koy dañ koy diagnostiqué xool oto bi ba pare mu ànd ak fiche ñu ñëw indi ko buy ñëwee fi aussi balaa ñu ko jaay kenn kooku day indi mécanicien vérifié diagnostiqué otoom ñu soog ko jaay oto bi. xam-xam googee du ñëpp ñoo ko ci am. sur cent personnes yoo xam ne ñu ngi importé oto vingt personnes nga ciy génne ñoo xam ne xam nañu oto ça t'arrive des fois même de voir un groupe de commerçants cinq personnes ñu indi cent véhicules. am na ci parmi les cent véhicules une cinquantaine boo xam ne fekk ñëw ñu xool jox la carte grise bi nga liir ko wala type oto yi mënuñu la oto la nit dina importé oto sax doo xam ne muy ubbee maal bi. saxaar si ne ci jaww ji ñu ne mën nañ ko wàññi bu baax a baax. fekk arrêté wuñu oto yi ñuy recycler au Sénégal pour polio du jóg Sénégal parce que toujours comme li mu la rek dans toutes les garages sont pleines ak véhicules yoo xam ne bii am na 17 ans bii am na 22 ans am na oto yoo xam ne dañ koy reprendre avec ay toolu zinc. les moteurs la même chose moteurs yi ñu jëlee fale en Europe sànni ko wala mu nekk à la ñu def ko en épave moom la ñuy indi fii di ko resegmenté pour muy daw ci auto transport yi. ab jàngat bu mbootaay gi ko wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi di soññee ci saxaar si ne ci jaww ji. ci ndakaaru tolluwaay bi jéggi dayoo téeméer ak ñeent fukk ak benn ci mètre cube mu ëpp fopp li OMS wax mu yombal yile jàngoro lu ci mel ni cardiopathie accident vasculaire cérébral cancer des poumons wala boog asthme voilà donc fàttali ne loolu moo nekkoon gëstu bi nga amal ci euh, pollution atmosphérique ñu gën ko war a waxtaanee ak suñu invité mais je pense que euh, loo xamante ne la on est tous concernés ci li koy àndeek li muy dal après conséquences yi ñoo koy indi ñooy dund conséquences yi. voilà nous sommes en partie responsables sax la ñuy wax. Mm. ci li nga xamante ne nii moom la ñuy dund tey jii euh, suñu gan ñu daal di koy nag dalal présenté ko également muy docteur Mamadou Ndiaye il est phénomènologue docteur Ndiaye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu ki ne di nuyu ses collègues yi nekk ci plateau bi. ak ñëpp ñu ñuy seetaan à travers TFM. voilà ñu ngi lay remercier déjà ci ci ci wuy si bi ndax xam nga euh, temps bi nekk na loo xamante ne xëy na du ñëpp nga mën a déplacer mais heure bu ñu leen soxlaa woo leen ngeen ñëw donc ñu ngi lay jaajëfal d'abord ci ñëw bi euh, docteur euh, ñoo ko gisandoo muy pollution atmosphérique bi mu nekk loo xamante ni daal doy na waax waaye man li may njëkk a wax rek xanaa ab jàngat gannaaw benn constat bu ñu def nee nañ dakaar bu ñu dee seetlu tey moom moo nekk capitale bu gën a polluer ci Afrique yow loolu noo ko jàngatee déjà balaa ñu dugg ci risque sanitaire yi. kon ñun jël nañ fi trophée boobu. waaw ah, boobu benn d'accord y a benn étude bu ko wane évidemment am na étude yu ko yu ko wane. boo mhm. defee recherche sur internet. Mhm. Euh, même boo xoolee boo fekkee da nga yàgg tukki nga xool ci sous région bi. yi nga xam ni pollution bi nekk Dakar. ak oto yi donc nekkul ci benn capitale fii ci sous-région bi donc je pense que ni loolu c'est une réalité te pollution bi jërul kenn di ko wax kenn boo xëyee génn xool atmosphère bi xool climat bi di nga xam ni euh, Dakar bi la boo xam ni dafa pollué mm. te pollution bi chaque jour dañuy seetlu ni chaque année dafay gën di yokk mm. te buñ ci deful attention dinañ toll moment yoo xam ni Ah, dina xaw a doy waar. mais lan moo waral ñun ñu dem ba nga xamante ne Afrique ak ni mu yaatoo. ñu war fi nekk ville bi gën a pollué te pourtant ñun gënuñu gënuñu ëpp population kenn. Mhm. am na dëkk yu bari yoo xamante ne ñoo ñu ëpp biir Afrique naka la ñu def ba gën leen pollué. xam nga développement dafay am benn politique politique d'urbanisation ak moyen de transport yeeg yooyu yëpp dañ koy réguler mais boo seetee actuellement Dakar li ñu immatriculé ci oto par jour boo ko xoolee di nga xam ne lii chaque jour presque ay oto yu bees ñu ngi ci kaw tali mhm. te oto yi ci bees visite technique bi nu war a am amuñu ko oto boo taxaw ci ginnaawam nga xool li muy dégagé nga xam ni oto bi baaxul. amul na yoo xam ne saxaar bu ñuul bu boo xam te odeur bi dootu yow da nga il faut que sax nga tëj sa vitre pour mën a respirer normalement. non façon saxaar bu ne am na di nga gis bu weex di nga gis bu ñuul façon bu ne am na fi. waaw am na oto yoo xam ne dañuy saxaar de manière permanente dañuy génn sax benn tuyau ci côté bi. pour may ko muy saxaar pour may ko mu saxaar. <laughs> effectivement ah, mhm. parce que à chaque koy waxtaanee fii maanaam dañu war di toog suñu autorité yi déjà présent que ça soit parlementaire yi ñuy déjà présent commencer réfléchir ci Dakar dans vingt cinq ans Dakar dans trente ans certes ñi ngi teg ay ëpp yu mel ne ay Diamniadio wala dara mais au delà de ça il faut tamit ñu xool Dakar dans 25 ans nan la mën surtout ci côté bi nga wax mooy côté oto yi oto yi chaque ñuy dugal ay oto yu nga xamante ni ñi muy gën di yokk doo xam ña boo xoolee euh, parking yi rek oto yi gaare embouteillage ñoo ëpp yi nga xam ne actuellement ñooy daw léegi yi gaare ñoom bu ñu dawee ban ban fii la ñu yaay toujours ñoo embouteillage mais pollution bi déjà mm. dafa nekk point bu am solo bi. nga wax am na te je pense que il faut ñu wut ay yeneen alternative ay mode de transport parce que nit ñi il faut dañuy am na ay da ngay bëgg am sa oto da ngay bëgg am mais bu amoon ay système de transport yu baax ay mode de transport yoo xam ne électrique la utiliser ay train yu yóbbu nit ñi wala ay bus yoo xam ne dina mën a yóbbu benn kat ñu bëri dinañ bàyyi transport bi wala di mën sax gaare sa oto di ko utiliser par weekend wala ñu xool sax n'est-ce pas qualité de l'air par rapport à ça et puis mode de construction yi boo xoolee littoral bi nga xam ni moom lan amoon nga xam ni au moins dina permettre nettoyer bâtiment actuellement nii Dakar tout le monde souffre boo xoolee dafa tàng température yi ñu commencé di am chaque année ñu constaté ni tàngaay bi mu ngi gën di yokk te au moment où on peut parler gars yi les présidents ñu ngi Maroc ci COP pour wax des problèmes de l'environnement c'est une réalité te suñu deful attention on va vers euh, lañ jëm kooku moom ñëpp d'accord nañ ci pollution boobu euh, docteur ñu ngi koy jiñ sax oto yi gis nañu ko ndax moom lañ fi waxtaane boobu léegi mhm. waaye dafa mel ni pollution bi yemul ci oto yi ndax am na yeneen yeneen mbir yoo xamante ni mm. ñooy polluer suñu environnement lu ci mel ni euh, canaux à ciel ouvert yi aussi waaw pollution bi dafa bari ay sources industrie yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Dakar boo demee ay côté aan ak yooyu ay industrie yoo xam ni respecté wul benn norme de l'environnement amul boo demee taxaw gis ko xam ne amul ay canaux yi nga xam ne à ciel nekk la ñuy sànni ci biir te décomposition matière organique yi bu dajale ay batterie ak lépp la ñuy dugal ci biir yooyu yëpp waaw bu décomposé ba ngelaw li affaire nit ñi dañ koy nooy surtout population yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk à côté et surtout sa yaram dafay daw ak xale yi xale yi booy liggéey boo xoolee xale yi taxaw ci kaw tali bi oto yi di dégagé mais xale bu demagul fenn amagoo 5 ans 6 ans. di nooyi loolu commencé di la intoxiqué. mais mais juste justement docteur euh, ngelaw bu bon boobu nga xam ne moom la ñuy nooyi air polier bi lan la mën a def ci suñu organisme. Euh, ñu nit ñu xamuñu lu bari gis nga poumon xëtër yi nekk ci biir nit c' est l' organe le plus exposé de l' organisme du yaram bi de. parce que sa surface rek boo ko xooloon surface bi bu ñu jëloon poumon nañ ci tapisser salle bi ñu nekk. ça fait cent quarante mètres carrés environ. bu ñu jëloon benn poumon wu yi bu ko dindi woon seen surface. mën nañ ci tapis ñun am nañ cent quarante mètres carrés ci biir nii. waaye dañ ko plier bi dafa ngàdd. li may wax nii réalité. donc nga xam ni lépp lu dugg pour mu génnaat dafay am ay jafe-jafe. c'est clair que yàlla bi muy defar poumon am na lu mu ko booleel. booleel na ko ay cellules yoo xam ne dafa mel ni ay bale yoo xam ne dafa nekk ci kawam. ak ay sécrétion ay tuflit yoo xam ni dañuy liggéey 24 heures sur 24 mais nag liggéey bu nekk dafa am fu muy yam ce qu'on appelle escalator mucociliaire. maanaam mooy seen njariñ ñi nga wax. mooy boo nooyee. Mhm. bu particules duggee ci sa biir yaram dafay takk foofu tuflit yi daf koy téye. léegi di ko bale muy génn bu ëgsee ba fii soit nga xaxtandi ko tufli gis yenn saa yi mu ñuul kooku boo toppee. waaw parfois wala nga wann ko ñaar yooyu moom moo nekk mais mécanisme de day toll foo xam ne dafay dépassé wu. te non seulement particules yi nga xam ni dañ koy noyyi dafay agressé cellules yooyu. Mhm. te agression boobu mu leen di def ñu essayé di ko réparer parce que chaque fois su yàqoo day am lu muy réparer. mais xam nga ne réparation dafay am ay limites. waaw day dem ba benn instant cellules yi dootuñu defati seen fonction boobu. ci cigarette boo xoolee ñi nga xam dañuy tux cigarette ci ñooñu la gën a da ngay ñu ni dama amee bronchite chronique maanaam ci sëqat la dëkk.

on peut faire pour ñun aar suñu wergu yaram aar suñu suñu yaram est-ce qu'il y a des méthodes que vous avez mises en place pour que ñun ñu mën a aar suñu bopp ñun ñi nga xamante ni kiiwuñu waaw xam nga dafay dekk ci niveau yi ku nekk responsabilité yi bokkul nit ku nekk mën nga fexe bu fekkee da nga am oto boo xam ne wax dëgg yàlla xam nga ne oto bi baaxul dafay saxaar nga gaare ko nga dem dugg ci oto bu baax xam nga loolu responsabilité individuelle la ci domestique bi tamit ci kër gi am na nooy construire sa kër pour que mu mën a aérer pour que air bi mën a ventiler mhm. mais politique bi nga xam ni nit ñi war nañ koo jël c'est les de l'État maanaam président yi dëkk bi ñu ngi ci ñii ne d'accord na ñii d'accordul parce boo waxee dañ développement développement boo xam ni ci kaw nit ñi la war a këpp mais loolu du développement recul la kay je pense que c'est yoo xam ne il faut que oto yi nga xam loolu policiers yi gendarme yi ak visite technique bi war nañ ci. mais bu ñu gaaree oto yi pollution bi c'est c'est euh, du oto yi kese. a nga usine dafa war a visite boo xam ne fekkee respecté wu leen war a tëj. Hmm. dañ leen war a tëj wala ñu daan leen ay sanctions. ñu ngi nii tali bi tey dañ ñu ngi defar seen contrôle yooyu pour surcharge parce que day yàq tali bi mais boo demee boo sitandee da ngay fay usines tamit c'est la même chose moi je pense que yaa ñuy jox ay solution yu radicales yoo xamante ni mënuñu ko def léegi actuellement balaa solution yi parce que may mhm. boo génnee tey fekkoon am je pense que Dakar am na léegi centre de contrôle de qualité de l'air normalement information yi war nañ koy jox tous les jours nga xam ne su fekkee joxe nañ ko le matin nit ñi bu ñuy xëy am na ñuy takk masque am na yenn pays yoo xam ne da gis ku nekk takk ko mais je pense que boo bëggee takkal sa bopp masque takkal xale yi. <laughs> non day dugg rek xaw metti fekk parce que feebar yoo xam ne xam nañ leen carrément. muy dal nit yoo xam ne pollution moo koy indi. waaw xam nga feebaru euh, xëtër ak euh, poumon yi nga xam ne fi la ngelaw di jaar en général dafay évoluer lu yàgg d'abord fépp fi ngelaw li di jaar rek. dafay manifesté wu da ngay commencé di soj soj daf lay gën a yomb nit ñi léegi tout le temps dañuy soj. Mm, sa baat bi tout temps da ngay yaakaar ni danga nga amee angine da amee rhinopharyngite souvent da ngay am ay infection ay bronchite bu yàggee da ngay am ce qu'on appelle ay BPCO ay bronchopneumopathie chronique obstructive beneen bi ci biir bu yàggee sa poumon yi dafay commencer di per cette élasticité maanaam capacité respiratoire bi nga doon am dootoo ko am te ni muy manifesté wu maanaam boo doon xëy di def ay 2 kilomètres di ko dox da gis ni distance bi dafay commencer wàññiku mm-hmm. te malheureusement ñu bëri dañ naan âge bi la da yaakaar naan at yi la dama commencer màgge di adapté wu ses activités en fonction de seen niveau respiratoire mhm. te moment bi en général bi ñuy consulter day fekk c'est trop tard maanaam bi nga xëyee mënoo sangu wala booy lekk da gaaw a sonn ci ngay dem te moment boobu day fekk poumon yi yàqu na te poumon yi en tant que tel du structure boo xam ne dafay régénérer lu ci yàqu rek maanaam pare na heureusement que surface bi yaatu na bu yàqu mën na yàqu sur 10 ans sur 15 ans wala même bu facteurs yi bari mën na gën a gaaw loolu mais bu yàqoo daal da ngay gis ne socc yu yàgg la ñuy am. te ba pare dañuy am ay difficulté pour respirer. da ngay mm. foog ni yow doom bi nga jur dafa asthmatique. soo demee ñu ne la du asthme. Mm-hmm. donc ay socc yoo xamante ni da daan durer ay trois jours léegi day dem dangay ngay gis ay liir yoo xam ne dañuy socc ay 1 mois d'affilée. Mm-hmm. nga jël def traitement bu nekk doo doo ko mën a doo ko mën a dimbali. waaw loolu li koy waral boo seetee normalement boo sojee nga def benn infection que ça soit virale tout ça normalement infection virale bi dañ na li ci des mooy séquelles nga xam ni dafay def ay une semaine deux semaines pour mu arrêter mais léegi su fekkee dafa am ay facteur maanaam pollution bi tout le temps daf koy agresser que ça soit pollution chimique bi tout ça loolu dafay entretenir inflammation bi

lu ma lu ma doon laaj fàcc ne léegi mën na ko cuuraay neex na mais comme saxaar bi muy saxaar est-ce que mën nañ ko jàppee euh, facteur facteur polluant te sedd baa ngi ñëw ku nekk ku nekk uti sa fas yéenee uti sa ànd fas yéenee cuuraay kër gi ba mu xeeñ bon souvent li may wax ay poumon c'est pour respirer de l'oxygène l'air génne gaz carbonique xet gu neex baax na mais ci bakkan la yam loolu il faut ñu d'accord te toute substance lépp looy lakk loo xam ne du doon dund la nga lakk ko dafay dégager monoxyde de carbone loolu ñëpp ñëpp xam nañ ko ak yeneen composition yi ci boole yoo xam ni kenn xamul lan la yu raay dañuy jaxase ba mu ah, boo ko nooyee d'accord dina neex sa bakkan de mais bi ba mu ba mu jolli noonu xër neeg ak cuuraay bi nga yaakaar ne le mieux gënul ñu def cuuraay bi dem toog ci biti ba mu ba mu dañ est-ce que du loolu oh, moo gën boo defee cuuraay bi ba particulier yi nga nekk nekk nañ en suspension au moins wàcc nañ déposé wu na Ndiaye yow am nga laaj boo defee tuuraay toog ci aspiré euh, gaz boobu muy dégagé que ni dina la jural ay problème ci pare xam nga li ci gën a jaaxal mooy que dañuy jël cuuraay déjà dafa ñu jël ay banti garab cuuraay ko parfum yi am alcool sotti ko ci ba pare jox la pour xër la ko def ko néeg bi ba pare ñu naan nemmandi la. di la <laughs> franchement loolu. Euh, docteur war nga ci gën a euh, euh, wax ak gars problème mu nemmali bi di ci bàyyi xel bu baax. vous savez c'est ça. problème naan la dañ lay nemmali jigéen day joŋee. fekk ñu ngi lay rey vous savez ñu lay rey. ndeket du nemmali. ah la. waaw léeg vous na naan Némali fekk ne au cas contraire ñu lay dogal waaw loolu moom Némali moom xam naa ne wóorul moom. Hmm? donc Némali moom wóorul moom. je pense que ni lan nga yaakaar ni euh, mën nañ ko def c'est vrai que. Euh, nekk na loo xamante ni nee nañ daanaka ñun ñoo koy ñun ñoo koy teg suñu bopp. ndax mm. pollution bi ñun ñun ñoo koy. ñun ñoo koy provoqué te xam naa ni itam liñ ci wax rek fegu ci dina jafe tey lan nga yaakaar ni mën nañ ko def ci côté askan wi pour que vraiment yëf yi bu dee day am ay risques tamit risques yi bañ a bañ bañ am solo lool. d'accord moi je pense que ni nit ñi il faut un changement de comportement ah, ci suñu mode de vie d'abord manière bi nga xam ne moom la ñuy construire te fii il faut nit ñi di ay arbres. parce que Dakar boo fi xoolee nit ñi dañuy tabaxi bâtiment rek ah mu tàng jër fatt ko R plus 4 R plus 5 amul sax benn moom daal bokkul ci suñu affaire xam nga loolu tamit nit ñi ñoom ñoo ko war a def nest bu fekkee tabax nga kër nga tabax au moins nga def ñaari garab. ñaari garab ci buntu bi ah, au moins xaw a feex xaw a ventiler mais léegi de nit ñi dañuy bëgg tellement tabax terrain bi yëpp ba nga xam ne ci tali bi la ñuy sës donc dootoo am sax espace boo xamante ne. Ah, fa ngay saxalee garab xaalis rek wut koo fi gis muy tabax mu ngi xaalis rek lay wut. Mm. mais tamit il ñu xalaat ni ñun parce que damay wax ne nit ñi ñun moomuñu suuf si moomuñu àdduna bi dañ ñëw fekk ko fi dañ ko fi bàyyi te loo xam ne moo ko da nga ko war a respecté parce que du yow rek yaa fi nekk dafa war a am yeneen génération yoo xam ni a ñëw te ko xoolee doo xam lan lay nuróol ah développement développement am tey xaalis. égoïsme de passé wu ko naa yi li ma leen di bàyyil sama yoon nekku ci. sama yoon nekku ci loolu loolu loolu loolu du yoon. bi. Mhm. dañ ko fi fekk. boo ko mënul améliorer nga bàyyi ko ni nga ko fekke woon parce ñeneen ñi dañ war a ñëw mhm. état bi tamit il faut ñu am ay politique yoo xam ne métti na ay changement de comportement dafay métti mais il faut que état bi jël ay responsabilité parce que da leen a fal pour loolu da leen fal pour ñu aar ñu aar gi du jël ay gendarme ak policier mais il faut nga aar nit ki ci nekk comme ni ñu koy gisee si yeneen feebar xëy na toog am na yenn feebar yoo xam ne mën war mën dem di def test euh, pour mën ko prévenir est ci wàllu poumon également nit mën na toog mu yàgg mu dem saytu poumon ndax euh, nekk na euh, normal na wala yooyu est-ce que loolu aussi mën na nekk loolu c'est possible nit ku nekk chaque année am na âge boo xam ne boo ko tolloo à de 40 ans n'est-ce pas war ngay faral di seet sa yaram parce que seet loolu ne à partir de 40 ans jëm 45 ans feebar yi ci lay commencé di ñëw mhm. mën nga chaque année nga dem defi bilan ñu defal la rajo xool ba xam amul infection amul na tamit ay mesures yoo xam ne ay spirométrie dafa mat sa âge attention ça veut dire que ni <laughs> a problème donc loolu am na mën na nekk et di def sport parce que sport dafay améliorer sa capacité respiratoire. da ngay doo gaaw a sonn et puis dafay permettre n'est-ce ce que asthmatique yi alors dinañ mën di def sport parce que comme ni ñu ko waxee. ñoom xam nga dañuy gaaw a sonn dañuy def sport. Mhm. asthmatique yi est ñoom aussi euh, doo leen conseiller pour ñu xam ne war nañu ko mën a def waaw c'est mën nañ def sport mais ak sport yi ñu mën a def. c'est vrai environnement pollué bi boo fi génnee boo dawee da def crise ah tamit dina respecter normes yi dina am ay système d' aspiration mm-hmm. parce que tamit mënuñu dajale salle boo xam ne dafa fermé wu di sport di defar di gaz carbonique te amul système d' aération loolu dafa war a am renouvellement def sport mais nañ xam sport yi nga xam ni moom la ñuy def en tout cas daal on peut dire que la pollution est l' affaire de tout un chacun et que ku ci nekk war nga ci indi sa pierre à l' ba nga xamante ne euh, ñu éviter ko mm-hmm. éviter ko nit yi surtout protéger nature beeg environnement bi pour suñu doom yi di ñëw et man damay préconiser tout le temps ñu commencer ko dugal ci programme école yi intégrer ko ci bopp xale yi ñu màggaale ko ba nga xamante ne bu ñuy protéger environnement bi day nekk loo xam ne lu spontané lay am solo euh, bijou ndax yaakaar naa ni nga ko waxee surtout que inscrire ko ci programme scolaire yi. Mhm. dina am solo ndax loo gis lu ne dañ naan éducation de base def ci baax. xale yi il ñu xam ko ci ba muy teel yaakaar naa euh, bijou li ñu amoon ci temps euh, kii nañ ko bon nañ ko xanaa rek nag di ko dellu di ko jaajëfal bu baax moom docteur du Ndiaye may rappelé ne pneumologue la euh, wis bi kontaan nañu ci li ñu doon waxtaanee également yaakaar naa ñu bari dinañ ci jëlee njariñ ndax lu aju ci pollution atmosphérique nekk na loo xamante ni nit ñi ñi ngi ci loru ndànk-ndànk ndax ni ñu ko waxee rek nekk na xeet yoo xamante ni dafay rey nit ki mais silencieusement te ni ko waxee balaa nit ki di ci rendre compte fekk na c'est trop tard donc nañu gën a bàyyi xel ci li nga xamante ni nii moom mooy suñu environnement gën koo sàmm ndaxte njariñu ñëpp la merci beaucoup docteur merci merci d'être passé sur le plateau waxtaan ak ñun waxtaan bu am solo bi ah, Pape Samba nga ma bàyyi waaw maa ngi nuyu Alimatou ak Aïda Pape Samba tuuti bu bënn sama noppi doo nuyu Alimatou nuyu naa ko waaw voilà kontaan nga balaa mu ñëw supprimer bañ maa wane ci ba émission bi jeex bi bi ngay ñëw daf ñu menacé naan ñu waaw sama question yi ma préparé woon yëpp ba naa ko loolu la ñu wax sama beau frère ngeen ànd ak dal ànd ak yar teggin wax ak moom normalement nii ñu defee neex na la sorxo na nii ñu defee neex na ko ah. kon baax ah. merci beaucoup docteur d'être passé sur ce plateau euh, waaw demal kon reportage yaa ngi lay xaar ba lundi incha incha allah fàkki li ban ci bi ban woy nañ ay waaw dëgg la de fóot bale lekk lu set fóot bale lekk lu set feebar du la yomb li nga waxee sax générique bi nga yaakaar ni sama générique santé du ma la jox rek nga def da koy jar nag ah? a bu a ba dellu si boo dee fotti bala di lekk sa yaada yaay feebar du la yombee man feebar du la yombee ndeysaan boo alfi ayca awul feebar du la yombee feebar du la yombee. <laughs> c'est fini am nga générique yow générique bu bees tàq donc fàkk na dem ñu lay ñu lay remercier bu baax di la jox rendez-vous lundi incha allah. incha allah d'accord ci yeewu leen lundi pour xibaar yi dina mercredi sori la lundi. <laughs> ba merci à toi ci waxtaan bu am solo bi nga waxtaan ñun ci côté pollution je pense que euh, c'est l'affaire de tout le monde nañ ko jël def ko suñu affaire bopp jéem a sax comme ñun France souvent lu mu def ñu def ko nañ jéem a xool jour yoo xamante ne dañuy ne tey voiture yi am euh, numéro pair ñooy daw suba ñi am numéro impair daw pour mun a wàññi pollution bi au moins une fois par semaine ndax ñoom loolu dañ koy def souvent bu tayee ñu ne ñi jeexale un deux trois ba ay cinq affaires yooyu ñoom ñoo dul daw suba ñeneen ñi ñoo dul daw comme ça polition bi wàññeeku ndaxte tamit euh, trophée bi nekk capital bi gën a pollué biir Afrique daw na yaram. dañu amul ndox. Ah? dañu amul environnement amuñu gàncax bu bari bu fi nekk. waaw waa fii amoon nañu ay ba pare man bi ñu doon wax ci COP 21 yële passé ba léegi. man gisaguma fu léegi dañu lay tudd lancement la ñu ngi def. y' a yoo xamante ni euh, ba tey c'est que pour changement bi du bii sax bële yàgg na yàgg na mais pour que changement bi effectif mu nekk loo nga xamante ni dafay gaaw day metti parce que y a y aura beaucoup d'habitudes yoo xamante ni il faut ñu change leen te loolu ça peut pas se faire du jour au lendemain non mais actuellement ñu ngi réunir bi may wax nekkul COP 21 lañ ko bi voilà on l'avait décidé il y a ay trois ou quatre ans maintenant sinon plus. que ñu ngi koy waxtaanee garab yoo xam ne dakaar la war a jóge dem ba Éthiopie. bu baax traversé loolu mm-hmm. yëpp. donc boobu ba léegi ñu ngi koy cette décision. ñu waxtaanee mais. pour l'union africaine la woon loolu ah, union africaine ñoo ko décidé woon. pour yenn pour yenn zones yi pour déjà commencer euh, à réfléchir sur l'environnement notre. Euh, il y mais actuellement ñu ngi Maroc. ci di réfléchir là-dessus tamit ci COP 22 bi. mais gis nga mhm. toujours grande décision yi comme ni ñu ko doon waxee rek grande décision yi ba tey day des day tardé pendant ce temps que yenn mi ngi mi ngi pollution bi di di di. xaarul de décision bu ñu ci jël war nañu jéem a xool naka la ñuy def pour jéem ko gaaw a mettre en avant mais en attendant population bi ci boppam il faut ñun ñu jéem a jóg xeex polition bi comme ni ko médecin bi waxee suñu ay doom lañ fiy bàyyil euh, planète bi buñ fiy jógee donc il ko ba pare soog a dem Pape Samba bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ma may ko léegi passe màggal ñu ju soog a jàll li des ci programme bi allo allo 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 allo. waaw kaa leen jël si paas yi allo. allo waaw. waaw sëñ bi. waaw ñu ngi ziar. ça va delloo ziar. yaa ngi ci alhamdulilah. noo tudd fooy wootee. Mohamed Diagne woote Kayar. fan ci. Kayar Kayar. Kayar. waaw. yaa ngi waaj màggal gi. kañ nga bëgg dem. man xam suba la bu ko yàlla suba incha waa léegi dañ lay jox vingt mille nga yóbbaale ko. loolu. waaw waaw xanaa nag ñu dégloo ci télé bi. waaw. waa léegi bul coupé comme ça ci ginnaaw ñu jël sa numéro dégg nga. waaw waaw. voilà. voilà donc yéen ñi seetaan continuer leen woote dañuy continuer maye ay passu màggal numéro yi xam ngeen ko 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 femme bu ñu jugee ci woote beeg passu màggal yi ñuy maye yow la ñuy àndal ci sa rubrique nga invité euh, directeur euh, coopérative euh, de la sénégalaise. par les immigrés et pour les immigrés yu ñëw waxtaanee euh, problème boo xamante ne yaakaar naa ni immigré yu bëri dañ koy rencontrer ci seen euh, biir voyage ndaxte dañuy dem liggéey dajale seen xaalis yëg ay kër yuy jaay wala ay terrain yuy jaay ñu yónnee fii finalement suñu ñëwee ils se retrouvent avec rien du tout. tout à fait Bijou euh, tey ci suñu rubrique habitat dañuy waxtaane ñi nga xamante ni ña nga bitim réew di sonn nag bu baax a baax di xëy di liggéey à chaque fois duñu lekk duñu naan ngir euh, mën a am kër goo xamante ni am nañ ko fii ci seen i biir réew di fi investir à 100 pour cent. Mhm. alors tout le temps dañuy am ay difficultés raison pour laquelle ñu créer benn coopérative bu tudd la sénégalaise am honneur ak plaisir invité ki nga xamante ne moom mooy euh, monsieur Moussa mbay moom nag moom moo nekk président wu coopérative boobu léegi ñu daal koy dalal ci plateau bi euh, Moussa nuyu nañ la. waaw Fama ñu ngi leen di nuyu di nuyu euh, téléspectateur TFM TV di nuyu aussi Bijou ak plateau bi yëpp. fay nañ la dalal ak jàmm ci plateau bi. waaw merci beaucoup. ah ñuy kontaan trop ci invitation bi ngeen ñu invité parce que tam waxtaanee habitat surtout habitat social dama defe ne loolu soxal na askan wi yëpp. Mhm. looloo waral tey jii euh, ñu ñëw fii di leen expliquer problème yi nga xamee ni sénégalais de l'extérieur yi ñu ngi koy dund muy muy accès au logement. Euh, bari na ci suñu xarit yoo xam ni dañuy dajale léeg yàlla dogal ñu def li ñu am léeg ñu ñëw fii dajeek ay promoteur léeg ñu nax leen léeg itam ñu joxe seen i mbokk duñ leen tabaxal wala ñu leen di ay photo naa leen chantier bi fii la toll ak fekk yooyu yëpp loolu amu ci ndekete tabaxuñ ci dara waaw loolu nag moo waral euh, ñun ay sénégalais la ñoo xam dañu basé wu ca Italie mhm. ñu am benn coopérative bu ñuy wax la sénégalaise muy coopérative boo xam ni euh, tur dañ ko dañ ko dañ ko askanale jigéen mhm. ndax sénégalaise ku ne xam na ni ñu ñu ñu ñu taaru la ñu ñu ñu am fula la ñu ak fayda mhm. loolu tax coopérative bi tudd la sénégalaise coopérative internationale ñu am nag ñeenti bureau ci biir Italie Euh, yàlla dogal nag euh, ñu gis ni daal euh, suñu yitte yëpp ñun mooy taxawu immigré yi ci bépp problème bu ñu am cette fois ci nag am ci ñoo xam ne dañu ñëw depuis ay at dinu dinu wax ay coono yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel mhm. bi ñu waxtaanee ci conseil d' administration bi ne ñu xalaatoon ni pourquoi pas mën ñu ci biir la sénégalaise ñu créé benn filière boo xam ne dañ koy déjee coopérative d' yàlla dogal daaw nag ñu def ak benn convention ak benn coopérative d'habitat boo xam ne mi ngi fii ci Sénégal sama benn jigéen bu baax jiite ko ñu koy wax une femme un toit ñun ñu def benn idée bu ñuy wax un immigré un toit. d'accord waaw ci loolu nag tey jii lañu ñu ñëwoon dinañ ko waxtaan ak. mais mais euh, mais yéen naka ngeen di xeexee contre. Euh, kër yi nga xamante ne escroquerie bi ñu leen di def par exemple ndax bu ma déggee ci say wax ñi koy def bari na soit sa famille soit benn ay euh, nit yu la woo ne la tel kër am na fii comme ñi koy def bari na naka ngeen di def parfois ay agence comme ni ko Ndiaye waxee naka ngeen di def pour xeex loolu. xalaat. ak sunu mbootaay parce que ci biir coopérative bi daf ci am ay jigéen yu takku euh, yoo xam ne ñu ngi ci diggante Brescia am na ci ku ñuy wax laa soxna Laari Jaxate mhm. ak benn beneen ku ñuy wax soxna sa Ngoone Mbay ñoo xam ne ñoom dañu dajale seen ay économie boo lekk yi nga xam ne moom la ñu am ñun ci capitalu coopérative bi ñu ne léegi dañuy créer benn filière boo xam ni dañuy seet naka la ñuy fexe ba bépp immigré boo xam am nga sa économie au lieu ngay dem rek di jënd kër balaa nga voilà dañ leen di conseil d'abord di leen assister comme ni leen koy defalee ci wàllu kii di séjour yi ak yépp euh, dinañ leen euh, booleeg ay notaire ñu ngi def sam convention comme bi ma leen wax léegi ci ak ay ay coopérative d'habitat yoo xam ñoom déjà ñu ngi sur le terrain am nañu ay terrain dinañ dem nañ fi ba visité gis nañu terrain yi ñuy defar viabiliser ñu commencé nañu seen ay chantier parce que da nga daan ñëw ñu laaj la sa apport personnel nga joxe sa xaalis am na ci agence euh, promoteur yoo xam dañ daan sa sa sa apport téye ko ci banque bi quatre ans cinq la jox caabi boo waxee ñun la matul wala amoo garantie wala kat chantier bi ñu ngi tabax ba léeg-léeg suñu wan la ay photo wala léeg-léeg ñun la gouvernement bi la ñu ay problème expliqué mais mais yooyu est-ce di ngeen def de sorte que ñu delloo leen seen xaalis waaw foofu nag mooy problème parce que bii rek maa ngi waxtaan sama benn jigéen mun ma gis nga loolu tam bu fekkee dañ leen invité war ngeen ci wax parce que am na ci ñoo xam ni dañuy ubbi compte mhm. ci benn banque de la place bëgguma tur tudd tur léeg ay compte dugal fa ay apport bu ñu ko dajalee ba mu mat ñu indi leen promoteur présenté leen promoteur bi présenté leen ay projet ak ay programme mhm. léeg-léeg programme yooyu comme projet la tudd léeg-léeg du sax aboutir mhm. su ko defee nag yow bi nga xasee dugal sa contrat ba signé ba ubbi compte ba versé ca sa xaalis dootoo mën a nangu xaalis ba boo gisaatee beneen projet wala beneen chantier sax dootoo ca mën a dem mhm. parce que sa xaalis du xas nga ko joxe ba pare te ngay toog ay at di xaar léegi nag da ngay nekk ci diggante banque bi ak promoteur bi ah muy nekk guddi gu bër setagul mais est-ce que bien avant di ngeen am ay professionnels de la loi par exemple ay avocats wala. waaw ñoo xamante ne déjà présent dañ mën di di di déjà présent ngeen préparé di préparé wu davantage seen yéen ñi nga xam ne yéen a bokk. ci waaw ci Italie am nañ ko parce que. am nañu même Sénégal aussi. waaw ñu ngi ñu ngi ciy waxtaan parce que ci Italie parce que coopérative bi dafa judd ci Italie def nañ fa juróom-ñetti at. gañe nañu aussi lu ñoo pris pour la légalité maanaam prix la boo xam ne benn immigré mosu ko gagné ci Europe ci Italie day xeex mafia di xeex corruption di indi di xeex tappale te lii ci doy waar mooy ay nit ñu ñuul ñoo ko gagné di ay sénégalais mhm. loo xam dañ doon wax ne sénégalais yi dañuy tappale di ay false di def ay caaxaan kon fépp foo xam ne ñun ñu ngi defendre image yu sénégalais ci biir Italie euh, bi 2000 loolu 2000 2010 lañ ko gagné bi ñu demee ba 2012 ñu gañewaat beneen prix boo xam dañu ñu ñun coopérative la sénégalaise ci 2 millions de de d' entreprises yoo xam ne immigré ñoo ko créé ñu gagné ko at 2012 ak 2013 consécutive kon yéen donc ñu ngi def ay jéego. Mm-hmm. mais nag am nañu ay avocats yoo xam dañuy jàppale ci wàllu séjour yi. ak parce que bari ci ay sénégal yoo xam ne sax bu ñu amee seen i problème foofu ñun dañ leen di génne ci kaso bi sax. héberger leen téye leen bu leen tribunal bi dénk ñu ko ñu leen di taxaw mais noonu lañu ñu xalaatee pour Sénégal yi nga xam dañu dugal seen xaalis ci wàllu habitat te ba fii léegi mënuñu gis caabi mësuñu gis terrain mënuñu gis mësuñu sax am benn néeg ñooñu ñu bëgg waxtaan ak ñoom ñuy ñaan tam di lancer appel tam. ci suñu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi foofu ñoo xam ay Modou ñu moo xam ay Fatou lañu. bu ñu jugee ñu seet si coopérative bi. fexe nu mu ci adhéré ñu taxawu leen tam. parce que nit ki tam balaa mu lay mën a. ku bëgg a bokk ci coopérative bi naka lay def. waaw coopérative pour nga bokk ci lu yomb la. fukki euro rek ngay joxe jënd carte membre ñu inscrit la nga joxe say document ñu enregistré la. bu ñu la xasee enregistré nag bépp problème boo am boo ñëwee boo fëggee bu dee ci wàllu yoon la dinañ la booleeg avocat bu la mm-hmm. bu dee ci wàllu euh, maanaam lijjanti la am nañ ay agent yoo xam ne ay partenariat yu ñu def ak ay institution foofu ci biir Italie mm-hmm. te tam ñu ko commencé def fii ci biir Sénégal parce que bërki démb rek signé nañu benn partenariat ak waa FAISE mm-hmm. bu madame Mbacké boo xam ne ñu ngi commencé tam di bëri xeex li ñuy wax immigration clandestine Mhm. parce que bari na suñu frères yoo xam ñu ngi dee ci gaal yi ak di mbëkk mi mhm. te ñooñu ñëpp xamuñu sax la ñu fekk Italie parce que Europe na mu meloon melatu ko xam naa loolu bu ngeen ñu ko permetre après màggal gi bëgg nañ ko gën a yaatal parce que gis naa ne nag plateau émission bii ngeen di def àdduna yëpp ñu ngi koy seetaan rawatina immigré yi. Mhm. voilà kon xam kii daal lépp lu soxal immigré daal yéen ci di ko xeex. te ku ñoo fay di euro ba pare amul dara lu muy fayaat. amul lu muy fay soxla bu mu am dañu koy jàppale pour mu aboutir. non seulement dañu koy jàppale mais bu bëggoon tey ji ubbi ubbi entreprise fii ci Sénégal parce que ñu ngi def aussi ay couveuse d' entreprise maanaam ay mhm. pépinière d' yoo xam ni balaa yàgg dinañu ni ay entreprise fii ay coono yu rëy la ñuy daje. dañ leen di ah, di leen yóbbu ci ay bureau léeg-léeg ñu daje ay nit ñu def loo leen. ay étude de te dara du ci sotti. Hmm. ñu fay seen xaalis ñàkk ko ah léeg-léeg nga gis ab Moussa Mbaye bu sol karawaatam ñoo wax la ay wax théorie la te fekk lam lay dara amu ci doxantu ñu mën a wax sax lañu waaw wax yu neex léeg-léeg nag euh, dana saf suukar lool waaw waaye ñun dañu bëgg léegi gars yi itam xippi seen i bët mhm. parce que am na fi ay institution am na fi ay structure yoo xam ne ñu ngi liggéey ci réew mi teg seen ci yoon tam mhm. nag ñun la ñu bëgg lëm loolu ànd ak ñoom dox pour Sénégal jëm kanam merci beaucoup Moussa Mbaye léegi pour wàllum kër gi ñi nga xamante ne ñu ngi basé wu ca bitim réew bëgg bokk ci coopérative est-ce que am nga benn wala foo xamante xamante ni mën nañ leen fa joindre comme ça ñoom ñu mën a ñëw bokk ci seen coopérative. bon fii ci fii ci Sénégal actuellement comme ni ma ko waxoon dañu signé partenariat ak euh, la ak euh, coopérative bu ñu une femme un toit. te ka ko jiite di madame Fatou madame faatu Bey Fatou Fatou Mbaye madame Thioune Fatou Mbaye mhm. nga xam ne moom mi ngi nekk ci Liberté 6 villa numéro 65 6510. d'accord foofu la siège yu coopérative am nekk. ok léegi nag ku fa bëgg même tam jigéen ñi parce que Séné dañu gis ni tam ci biir immigré yi faatu yi dañu sonn lool. ndax léeg-léeg ñu dajale seen xaay jox seen boroom kër mu ñëw takk ci ñaareel problème yi daal bari na lool. <laughs> waaw problème yi <laughs> ba tax na ñu bëgg ci taxaw daal ba ñoom it ñu am kër. wala yëfi àddina rek. allah en tout cas merci beaucoup sa passage ci plateau bi tey habitat bi mu ndiroon naag diaspora dem Kebs <laughs> Thiam ñu lay nuyu bu baax xam naa ni du ñàkk moom mu ñëw fa gën a waxtaan ak yéen ci problème yi nga xamante ne immigré yi dañ koy am waa ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen aussi profité ci événement moment bi ci màggal bi di leen di leen sunu sunu jigéen bu fi bu fi jógee bu yàggul rek muy tataa déggeen chimère te xam ne ñu ne immigré yi manqué nañu lool parce que ku ñu daan leen koy jaale di ñaan yàlla tam émission bi yàlla def ci barke ñu dem ba di ko def ci biir Italie ah, dinañ ñëw dinañ ñëw amul benn problème merci beaucoup Moussa jërëjëf amul benn problème merci donc euh, ñu lay remercier bu baax xam naa ni immigré yi nekk Italie yëpp seetaan nañ ko euh, ku ci nekk xam nga fan nga leen war a fekk pour mun a waxtaanee ñoom li ci wàllum habitat ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne wax na ko ci plateau bi am na yeneen invité yuy waaj a ñëw euh, pour waxtaanee màggalu Touba bi ak naka la ñuy def pour aider nit yi nga xamante ne dañuy am panne si yoon bi parce que mënul ñàkk mais avant yen ñi seetaan mun ngeen ñu woo ci 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 ñu jox leen paasu màggal yoo xam ne da ngeen koy yóbbaale euh, comme invité bi egseegul Ndiaye ñu waxtaanee euh, international. international Gambie la ñuy njëkk. Gambie waaw parce que ñoom dañuy def campagne électorale. voilà campagne électorale bu présidentielle bu Gambie ubbi na tey ci 16 euh, novembre bi. Gambie nag eh, di sori soriwuñu dara di suñu suñu dëkkandoo yi ñoom nag dañu amal élection présidentielle le 1 décembre bii ñu jub bii ñu jum si mu nekk eh, ki nga moo fa nekk président sortant mën nañu ko jàppe di Yaya Jammeh moom mi ngi wut cinquième mandat ñuy fàttali nag ne Yaya nga xamante nekk na président Gambie depuis 22 juillet 1994 ci moom mais ci gannaaw coup d'état bu fa amoon waaye ñu ko élire ci octobre depuis boobu ba léegi moo nekk président mi ngi wut ba jël pouvoir bi ci euh, ab gannaaw coup d'état bu fi amoon. 96 2016 20 ans la. waaw plus de 20 ans plus de 20 94 déjà bi 2014 c'est 20 presque 22 ans ans 2000 léegi ñoom bu ñu éliraatee ñaata temps lay nekkaat. cinq mu nekkaat cinquième mandat. buy duré yeneen cinq ans yeneen cinq ans yeneen cinq ans yoo xam ne mu nekk 27 ans mu nekk fas yéene nekk 27 mais déjà am na ñaari opposants yi fa nekk seen am na ñaari opposants yi fa nekk wax <laughs> waxal ci opposition man yaa jaame sama xarit la ñëwal ci xarit la ñun ñëpp moom dafa baax ñëwal ci opposition su dañuy waaj a dem Gambie defee fa yeewu leen ndax ñun waa Gambie dañ ñuy seetaan tout le temps que ce soit ñi nekk biir Gambie wala ñi nekk ci diaspora bi oui effectivement ñu ngi ñuy seetaan voilà ñu dem ci ñu dem ci opposition gambienne. ayca Gambie am na opposition. waaw ci ci candidat bi ci ci <laughs> présidentielle premier euh, premier décembre bi ñu jëm am na ñaari opposi opposant yoo xam ne fas yéene jàkkaarloo ak Yaya Jammeh. Mhm. mu di Adama Barrow moom mi nga xam ne benn coalition la la la diriger am na beneen euh, opposant boo xam ne tamit candidat du progrès de démocrates moom maanaam démocrate yi la géré muy Mame maam Kandé. amoon na benn opposant boo xamante ne dafa génnoon Gambie de. waaw waaw bari na bari na ñoo xam ne ay journa que ça soit journaliste wala ñoo xamante ni ay oppos opposant lañu en général sinon sinon pas trop. dañ ci non pas trop d' accord des des des des de proposition ci président. pourtant waxuñu dañoo ne suñu xarit la bu ñu bu d' accord bu baax ak euh, président Yaya Jammeh à chaque en général dañuy dañuy dañuy dañuy changer euh, dañuy changer dem dem beneen feneen maanaam di pour mën a. mën a gën a mën a assurer seen seen seen opposition exprimé ki nga xamante ni mooy Yaya Jammeh ce sera en décembre ça premier décembre effectivement d'accord donc euh, élection yoo xamante dinañ ko suivre pour xool résultat yi indi ko fii euh, mm-hmm. waxtaanee ko mu nekk euh, Gambie Gambie moom presque ak Sénégal benn la comme Moussa Ngom li mu doon prôné tout le temps pour ñu def ko Sénégal bi ndax Gambie ci biir Sénégal la nekk donc ñun lu fay xew rek daf ñuy laal directement information nañ ñëw partagé ko ak yéen. voilà mm-hmm. après Gambie ñu dem États-Unis waxtaanee Michelle Obama. ñu demati États-Unis ñu demati États-Unis voilà Michelle Obama. dafa am yow États-Unis doo génn ci ñoom man damaa génn ci ñoom léegi dama leen a bàyyi yéen a des ci seen ay. mais dafa am dafa am benn koo xam ne mën nañ ko jàppee benn euh, responsable la. mu mm-hmm. gère benn association du comité de la ville bu nekk euh, Virginie. Virgin de l'Ouest mhm. moom dafa posté ci page Facebook am daal di ki nga xamante ni mooy euh, après bi ñu gannaaw bu ñu falee Donald Trump daal di ŋàññi ki nga xam ne mooy Michelle Obama daf ko sax daal di sax xas mu ñu xas bu nga xamante dañ ko traité de mhm. ni ñu koy waxee moom républicain la waaw républicain la waaw li mu ci li mu ci li mu ci wax rek moo di dafa ni ki da sonn sonn nañ trop enfin bi Donald Trump gagné parce que sonn nañ trop ci gis nañ ma jéggal ci kàddu yi loolu moo nekk kaddu bi euh, golo gu sol talon <laughs> waaye ci gannaaw boobu nag. association républicain gi dara. <coughs> gannaaw boobu nag association humanitaire yi nga xamante ne ñooy ñoo nekk ci euh, nekk États-Unis mm-hmm. def nañ euh, pression ba nga xamante ni kooku fonction yi mu fa géré woon ci état boobu dañ ko daal di dàq. wàcce nañ ko voilà wàcce nañ ko parce que di wane ni euh, actuellement monde bi fi muy toll ni évolution bi nekkatuñu ci moment bi nga xam ne dañuy xas nit ñi. voilà. war waruñu nekk ci moment boo xamante ne dañuy gérer. mais en fait mënu je pense que je pense que mënuñu mënuñu bàyyi mu jàll. bu fekkente ne moom dafa ñëw. ñoom liggéey nañu li ñuy liggéey dem seen yoon fi mu ne wax ji. nañ la kay jarul waxoon di ñëw ñoo defar jiite na leen pendant huit ans. ma a neex mooy. Eh. Mm-hmm. nettul kenn. gàcce nga la ma Barack Obama. dëggantaan. Obama naa la barki démb daje nañu sànd ga waaye nuyantewuñu ndax damaa fekk mu doon. foo dajeeg Obama. li ngay wax la Ndiaye. sët yàlla kita nuyu wala moom tamit xanaa xàmme wu dafa yàkkamti woon. <laughs> mais xamante na ak yow. ndax booba mu ngi doon bañu bagage. waaw di dem waaye lépp lu ñu wax rek. na leen féete ginnaaw kon nag. na leen féete ginnaaw kay. gàcce gàllaama gàcce gàllaama. nga ni foo dajeeg Obama. proposal nag wala boog dañoo nduróo ko. déedéet dama laajte rek pour leeral foofu ngeen daje am benn problème xam naa dalaa dalaa gisul wala mu yàkkamti moo tax nuyu la. mais c'est ñàkkul saag yooyu saag yu mën a def yooyu nu mu tudd yooyu la doon wut si. xam naa pour préparer ay bagages pour yóbbu saag immigré yi naa ko faa kii sax. kookal la noonu ndax bu ko séenee muy taxaw mu ngi yëg ci benn raafkaat ma ne ko sàmbay baane obama obama papa ma yaa baax yaa bara ba ma après ci lañ la ma du moom ba daal di daal di bàyyi.

xam amul ku nekk ci ligne bi ma joxaale ko passe magal aussi mu yóbbaale ko 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 allo allo woote leen ñu ñu ñu ñu dem ñu jox leen paasu màggal yi ngeen yóbbaale ko bu leen neexee sax ngeen jënd ci sëriñ ci yoon bi daal di koy yóbbaale Touba fi ngeen dem allo allo comme amagul ku nekk ci ligne bi wala buuxante bee bëri ba nga xamante ne mënuñu leen euh, jot actuellement euh, pour ñu jox leen paasu màggal yi ñuy séddale ñu jàll ci suñu invité bi di Babacar Diagne ñoom nag chaque année li nga xamante ne moom lañ ñëw présenté fii dañu koy def dañuy nekk ci yoonu Touba bi di di circuler Dakar Touba di xool yan oto ñoo am ay panne ci yoon bi pour ñu aider leen réparer leen te réparation bi euh, ce sera gratuite Babacar salaamaaleykum. salaam dalal bi. bisimilah bisimilah. Mhm. newal yàlla jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ñoo ngi nuyu jullit yëpp. Mhm. ak mbokk taalibe yëpp nuyoo bi gën a set mi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu di si jiital nuyoo bi sëñ Sidi Mokhtar. daan fi yàgg te wér. amiin teg sëñ Cheikh di si teg nag sama sëriñ sëñ Bass Abdoul Khoudoss. bisu comme noonu lañ koy defee chaque année. di nuyu di leen nuyu waan plateau bi. fay nañ la di tey ñëwul xam naa. beneen yoon dafa jàmm amin amin dinañ jaale suñu yaay ju baax ja soxna déggan mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare àjjana amin amin yóbbu ko ci fiir danis ñeenti affaire la rek jëf waaw ay sa ci jëf la mm-hmm. àdduna lañ koy jëfee mm-hmm. yàlla lañ koy jëfal jëf ju baax du ràpp du furi dëgg la jëf du bon du ràpp du furi kii fayee du dee du fi jóge te lu ko waay lebal moom rek la lay fay àdduna jeex na ba noppi yoomal xiyaam ne kët ni jonn lu baax du fa doy lu bon ëpp na fa fuuf fuy jeex ak luy jeex nga bëgg faa liggéey lu du jeex farlu rek moo la ko mën a may fii àdduna mën nga fee tappalee ko njuñ njaaj ba jàll waaye péncum yàlla ma dëgg rek moo fay dox moo waral ñun ñu nekk ay mécanicien di liggéey ci mécanicien juddu si mm-hmm. doon ay taalibe Serigne Touba bañ nekkee jullit ba noppi xam xamuñu lenn luñ mën a fayale sëñ Tuubaa si lim ñu defal mooy ñun ñu jël suñuy outil suñuy kële tegu ci yoon wi képp koo xam ne nii dañu lay fekk nga paan grat ñu dépanne la gratuite mu jëm Serigne Touba rek d'accord association bi nag mi ngi bëgg a yàgg mi ngi bëgg a yàgg moom foog naa ni min nañ leen léegi min leen fi mu toll nag association yi bari na trop waaye bii mooy seen ndey ah, bii mooy seen ndey fu mhm. nekk nag ñu ngi fay dem di wax ku nekk ñu ngi may wax man leen man TFM laay def dëgg la parce que ñoom ba muy métti TFM la woon. waaw dëgg la tey du neex rek man moo kii kon TFM laa jël. di leen ñaanal ca kaw ca kanam. amiin di leen wax suñu point de départ croisement Cambérène la. waaw fa la ñuy déparé. Mhm. bu ñu fa déparé am na yoo xam ne ñu ngi nekk ci yoon bi. Mhm. Thiès. Mhm. Bambey Diourbel ba biir Touba. képp koo xam ne nii par nga boo ñëwee rek dinañ la dépanner gratuit te ay pièces yu bees tax. lañu am. di ko ci def di waaye léegi pièces yi leen koy jëlee noonu seen ay pièces bopp la ngeen di jël di ko defaat ci oto yi yàqu. voilà dañuy dajale li ñu am. am na ñu baax nag ñoo xam ne ñu ñuy jàppale. waa ku ci mel ni kenn sama rak. mu mhm. ñuy wax Iboulaye Diagne mécanicien la comme man. Mhm. day jël day génne teg ci compte bi moom compte am lay jël teg ci taabal bi Mamadou Niang mécanicien la de la force moom it noonu Pape Souley la. teg si compte bi si table bi Serigne Sare fële sa fi sa Fadia moom it day jël teg si compte bi am na keneen koo xam ne ni suñu partenaire la boo xam ne nii ku yàggal ñun muy Baar Gueye Clean mm-hmm. ak Serigne Moustapha Kebe mm-hmm. ak koo xam ne nii ñoom huile la ñuy jaay Walfu Walfu Souleymane mm-hmm. ñoo ñuy jox huile ak batterie nga xam koo xam dañ lay dab nga paan batterie dana la mën a jox léeg-léeg nga dal ci quartier sa quartier bënn ñu solal la huile mu ñoo ñoo ñu jox huile yooyu mhm. bu ñu ñëwee dinañ la fekk ci yoon bi dinañ la dépanner bu ñu la fekkee nga paan paan bu grave ci àll bi mhm. nga xam ne mënuñu la dépanner dinañ jël dinañ la fexe lonk la ba dugal la si dëkk nga am sécurité ñu bàyyi ñu bañ laa bàyyi foofu waaw léegi numéro bi rek nañu bëgg nga nga wax ko xam naa di koy répété lu bari sax waaw numéro yi waaw numéro bi 77 la 220 25 27 77 648 31 61 77 605 27 54. numéro yooyu ku leen ci woo jot leen. numéro yooyu ku ñu ci woo rek dañ ñu jot. mais mais man la ma bëggoon xam li ma bëgg a laajte chaque année bu ngeen demee ba egg Touba da di dëppaat wala ku ci nekk da am secteur boo xam ne fa ngay nekk bu ñu la woowee nga départ ñëw. voilà ñun bi ñu commencé mhm. ñu demee boobu jamonoy mhm. ne ah, dañoo jógee Dakar doon dépanner gratuite ñëwoon doon sàkku ñaan mu ne nu ngeen koy defee ñun ko dañoo départ dakaar rek di dépanner mun ma da ngeen mënuñu da ngeen def mun ne suba la màggal jouru màggal ak màggal ba suba léegi ñun la temps ñuy dugg Touba dañoo am ay numéro yoo xam comme numéro yi lañu ciy woo mm-hmm. ñoo xam dañoo pointé biir Touba par mm-hmm. léegi ku nekk dañu jël sa numéro liste boobu nag la ñu topp bi duggee biir Touba mm-hmm. ki ñu njëkk woo dañ koy woo fu mu nekk ñu dem fekk ko fa dépanner bu ñu paree noonu la ñuy wëree biir Touba ba ñuy paan ñëpp da bu ñuy njibis tamit noonu lay àndaat ak ñoom d'accord Ndiaye bi Cambérène la. waaw. croisement Cambérène waaw. Diourbel. Hmm. Bambey Bambey sama dëkk bi yow it Bambey Diourbel ah. Touba. waaw ah sa jaaxaan. waaw 77. 220. 220 25 27. 77 648 31 61. 77 605 27 54. 54 waaw. xam nga mm. xam nga da nga koy wax lu am solo. Mm. ndaxte Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mourideen daan na ko wax. waaw mm-hmm. nee na ku liggéey ba raw la mun a wax ba dab ko. Mm-hmm. te it. Mm-hmm. nee na la ko gën a gaaw togg boo ci bëggul am ñeex. da di lebal ki jaral liggéey dafa yéen seen bopp xam ngeen loolu. ndax kii ñu koy lebal. ku mën a fay la ku mën a fay la yéen ak ngeen xam li ngeen di def. da ngeen xam bu baax li ngeen def. loolu moom dëgg la waaw loolu moom dëgg la. parce yéeme woon na trop mais fi mu toll nii sant nañ yàlla bu baax a baax alhamdulilah day a dem mës naa ñëw mm-hmm. suñu deuxième année bi nga xam ne moom laay ñëw mm-hmm. ñu jaar yoonu Thiès mu xaj mm-hmm. li ma gën a marqué ñu jaar si àll bi yoonu yoonu route de Niayes bi c'était ay minuit demi yooyu ñu fekk benn paa boo xam ne nii dafa paan moom xalaatul fenn moom ku koy dépanne boobu mu lal commencé ko fanaan mais nag bi mu lalee ba dafa taxaw ne man bu fekkee Serigne Touba am naa ci yow dara. Mm-hmm. man duma ma fanaan fii. mais dafa wax loolu cinq minutes ñun ñu taxaw. ne ko service dépendance gratuite te dafa daanu. Mm-hmm. yuuxu jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si léegi laa ko woo mu ñëw. Mm-hmm. ñu ñëw fekk lu ndaw la paanoon ñu départ na ko mu taal ñoo keroog ñoo jiit la. mu lu yéeme loo xam ne nii ay yeneen cas yoo xam ne dañ koy dajanteek ci yoon bi. yoo xam ne nii. xalaatuñu woon sax ñoom dinañ màggali ndax paan yi muy am ñu ñëw fekk leen dépanne leen te Serigne Touba rek tax waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne nii dangay ngay dépanne ba pare jox la nga ne ko addi Serigne Touba day waaw billaa lu rafet la waaw en tout cas initiative bu la ah. initiative bu baax la wax nañ mm. ne yàgg na bari nañ ñu koy année yi ñu koy def gis nañ ci gis nañ ci njëriñ mm. mm. nii la amee ay jeunes yi nga xam ne ay mécaniciens seen xam-xam bi ñu nekk ñu ci jàppale ci moment bi nga xam ne

ñaanal jàmm nga dem dal ndànk yàlla sax ñu waxaat la li ñu lay wax chaque année rek mm. rendez année prochaine incha ñu communiqué waat ci amin amin amin année prochaine ngeen mun a am ñi nga xamante ñoo leen di dépanner gratuitement ci yoonu Touba joxe na numéro yi 77 220 25 27 77 648 31 61 77 77 605 27 54 donc bu fekkente ne yéen a ngi ci yoonu Touba bi paan fekk leen fa mun ngeen leen woo ñoom dañ leen di dépanner gratuitement du am dara loo xamante ne même moom ngeen di joxe ak comme ni mu ko waxee rek euh, ni ko Babacar Diagne waxee bu fekkente ne paan bi dafa garaaw lool te mënuñu la dépanner ñoom dinañ la xëcc yóbbu la ba ci biir dëkk bi nga mun a nekk en sécurité donc bon magal à et puis bon courage à ñoom parce ñuy def dafa am solo torop ci biir magal gi liggéey bu 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 bu ko defee ñu may leen paasu màggal euh, ku ma njëkk a décroché nag ci kanam dinaa la may 40 000 nga yóbbaale ko en attendant Alfi wax waxtaanee euh, comment bien manger tey nag ci euh, lan ngay wax. hygiène alimentaire d'accord. ay ay yow. ah. <laughs> Ndiaye xanaa ay wax day jeex. Ah, fi yow li mu mot a tey waxul dara. mag bi ne Thiel fas yéene wax ci. waxul dara hygiène alimentaire. Ah, dégg nga maa bañ a yëngal. ñaata lañ leen dóor. 2-0 de Brésil lañ leen dóor. parce que bële passé ñoo gagné woon. yéen a gagné te xam nga match retour yi am na. Euh, beneen yoon rek ñu wane suñu bopp ah. <laughs> yow xoolal petit ni lay def. ma ne sunu bopp. xoolal waroo def ni Alfi de. mu éperudori nga. maa bañ a toog ba ma sës. Alfi kat yow da nga ñoo Alfi bu Peru joué mu ne Peru joué na lu ñu wax mu ne ah, amoon na démb Peru bu ko dooree kay da koy wax da ngay partager l'information comme d'habitude. ñu koy di ngeen am problème de. waaw te xam nga du lépp ngay wax tamit sutura dafa baax ci mag. <laughs> dañ leen di suturaal waaw dañ leen di suturaal waaye ñu dem ci hygiène alimentaire hygiène alimentaire euh, bijou ginnaaw bi ñu waxee ci panneau mécanique yi nga xam ne oto da koy faral di def mais nit tam day panne. ak tey fàtte nga Sofia de perturber le perturber dem dañuy dem xool beurre Sofia ndax avant ñuy ñëwaat itam ñoom lañ ciy àndal. d'accord beurre Sofia ba géej gi di fer rek nga leen dem xool ñëwaat. Hello. 爱情的歌。bu euh, ànd ak vitamine yu am solo. voilà comment bien manger tamit Sophia lañ ci àndal bàyyi leen seen collègue yi ngeen di jëw. boo leen bëggee ngeen jël congé. dama ne bi njaayee laajte ex animé ma ni ko dafa jël congé man tax ma laajte Kiara di laajte ndax dafa jëlaat congé. non dafa dafa bougé dafa dem voyage mais léegi mu ñëwaat. Ah, incha allah demul congé di ko këriñ. ak Mado mais man maa ngi leen di compter Mado yow say bu ma bougé dinaa calculer say congé ñaata la rek di la fàttali. Pape Cheikh jour J moins 12 comment bien manger hygiène alimentaire. comment bien manger parce que xam nga ni ñu ngi dem ci moment bu important boo xamante ni dafa nekk màggalu Touba. Mm-hmm. Euh, nga xamante ni. lekk bu bëri dafa fay daje. Mm-hmm. mbooloo mu bëri tamit daje fa nga xamante ni dafa am ay euh, normes yoo xamante ni ñam yi dañ ko war a respecté euh, ñam nag boo nee ñam du da ngay jël rek toggee nu la neexee wala nga conserver nu mu la neexee parce que dafa am ay normes yoo xamante ni lekk daf ko war a faral di am. surtout bu fekkente ni dafa nekk euh, ay endroit yoo xamante ni ñi fay daje daf dañu bëri donc microbe yi dañuy faral di fa di fa di fa tase donc su fekkente ni. conservation aliments yi euh, bonne bonne pratique yi dafay bëri maanaam dafay dem ci manipulation bi maanaam ni ngay utiliser ni ngay laalee ñam yi ni nga koy déplacer ak ni nga koy conserver dafay euh, am importance ci li nga xamante ni moom mooy prolifération wu yi te muy dem ba sunu bi sunu biir euh, di fa andil di ñu fa andil jafe-jafe yoo xamante ni yeneen complication la ñuy andil naka lañu ñu mën a maanaam amee. Euh, trans euh, naka la ñu bactéries yi mënee jóge ci lekk dugg suñu ay biir loolu su fekkee dañ ko bëgg a expliquer dañ koy tënk rek parce que tamit moment bi duñu ñu permettre ñu mën a développer yépp il faut ñu xam ni intoxication yi dafa am te xam nga boo nee intoxication am na yoo xamante ni. dafay euh, basique am yoo xam ne dafay sévère yoo xamante ni mën na dem ba andil ñu ay complications waa ba ay hôpital daf ci daf ciy xaj te su fekkente ni jël nañu yenn euh, méthode yoo xamante ni yu basique lay nekk lu ci dem lu ci jëmee ni raxas loxo raxas say loxo bala ngay lekk raxas say loxo sooy togg utiliser li nga xamante ni dafay nekk ay ustensiles de cuisine maanaam ndab yi ñuy utiliser dañ ko war a sellal euh, ñam yi nga xamante ne dañ ko war a utiliser lu ci mel ni ay fruits ak ay légumes dafa laaj raxas su dee yàpp ñu xool bu baax yàpp yi nga xamante ne moom la ñuy faral di toggee xam nga ni foofu euh, rey bi dafay euh, dafay dafay bëri mhm. maanaam da ngay rey rek jum jublu ci li nga xamante ni mooy togg mhm. viande fraîche bi kenn du ko kenn du ko maanaam kenn du ci discuté mais tamit il faut savoir que yàpp yi suñ koy rey dafay am ay parties yoo xamante ni mën na contaminer yàpp yi ñuy faral di utiliser par exemple déchets yi yi yi nga xamante ni mooy déchet mooy am déchets yi warul mën a laal yàpp bi maanaam su fekkee dañuy dañuy rey tabaski fii gis nañu partie yi nga xamante ni mooy abaay yeeg mbàq yi mhm. waruñu ko jaxase ak partie yi nga xamante ni moom mooy yàpp yi parce que foofu waa foofu contamination mën na fa am su fekkente ni yow yaay lekk nga xamante ni yàpp ngay lekk mënul ñu la tegal rek ngay ñëw di lekk noonu aveuglément il faut nga ah, xam ni nii de xam naa dañuy yàqamti ñoom dañuy yàqamti plat bi tege rek ñu dugal loxo dugal loxo il faut nga xam ni sooy lekk sa guu bu boo ñamee war nga mën a xam ndax li ngay lekk baax na wala baaxul nga bañ a di sàqam ni rek di warax comme ni ko Pape Cheikh di defee euh, yàpp couleur la su fekkente ni euh, booy lekk gis nga ni couleur bi changé wala goût bi changé nga def attention ci li ngay lekk li li gën a am importance tamit ci li ñuy utiliser euh, ci maanaam ndaje yi bu bëree mooy nen ak meew nen ak meew bokk na ci ay aliments yoo xamante ne ñoom ñoo gën a gaaw a mm-hmm. soo jëlee lu mel ni nen nga xamante ni li ñuy faral di utiliser dafay përi mën nga jël sa benn bool boo xamante ni moom ngay def sa ndox daal di ciy def sa ay nen parce que nen dañ ko war a raxas avant ñu koy togg. avant ñu koy baxal avant ñu koy baxal wala avant ñu koy togg bu fekkente ni danga koy baxal xam nga doo mën a gis nen bi tànk ñorul. Mhm. donc mën nga jël sa benn euh, bassine boo xamante ni mën nga si def ndox daal ciy xoj sa ay nen. nga gis ni am na yoo xam ne yuy tëmb ak yoo xamante ne dafay flotter donc su fekkee gis nga ni am na yoo xam ne yuy flotter nga génnee ko daal di jël yi nga xamante ni moom mooy diig moom mooy diig ci suuf ñu togg ko donc loolu tamit mën nañu euh, aar ci li nga xamante ni mooy euh, intoxication yi ñuy faral di dégg am na benn bactérie boo xamante ni bijou mhm. dafay faral di làqatu ci ay ñam ba pare mu nosit bu baax ci sunu santé muy salmonelle salmonel bokk na ci li nga xamante ni mooy genre herbe aromatique yi soble yeeg yooyu nga xamante ni dañ ko war a raxas ci ndox bu bëri day nekk herbe aromatique yi dañ ko war a raxas ak man ni ma ñemee herbe noonu non parce que su fekkee herbe kenn waxul ni buñ ko wittee rek da nga koy ñëw rek utiliser ko. ci ci togg dafa laaj raxas. laajul raxas boo xamante ni dangay jël ndox rek dugalandoo ci légumes yépp ndox yoo xamante ni da ngay jël sa ndox yu bari nga teg bu ci nekk boo raxasee nga dugalaat ko ci beneen ndox raxas ko dugalaat ko ci beneen ndox raxas ko donc loolu tamit war nañ ko war nañ ci bàyyi xel parce que ñun jigéen ñi ñun ñooy togg. Mhm. donc loolu tamit il faut savoir que suñu yaram. am na ay euh, éléments yoo xamante ni comme docteur bi ni mu ko waxee sànq ñoom ñooy suñu ay défence tey sama yaram li mu mën a défendre ak li mu mën a rey ci bactérie peut-être yaramu bijou du ko mën ba tax na man ak bijou mën nañu bokk ndab lekk ko man ma jóg du ma ci am benn gàllankoor bii ju jug am ci gàllankoor. Mhm. parce que sunu ay défense bokkul. Mhm. donc daal na nit ñi sàlloo li nga xamante ni mooy set bii ju ndax xam naa ne loolu manqué wul li nga xamante ni mooy Touba. Mhm. ndax ndoxum raxasu ba dafa bëri. saabu yi nit ñi di raxasoo ak ndoxum ndoxum ndox ak saabu raxasu bu baax pas raxasu yàqamti ustensile de cuisine yi ñuy war a lekkee muy kudd di paaka di fourchette dañ ko war di raxas parce que tamit il faut savoir que foofu mën nga fa jëlee ay aliment pour mu mën a mu mën la gaañ dem kër njaayeen wala dem kër jóobeen lekk fa ceebu yàpp daal di dugg kër jàlloo lekk fa cere jaxase ko yaa rey sa bopp jël beurre sofia bi wala daf fu ñu romb xam nga bernde yi day bëri kër goo romb ñu ne la kaay ñu ne ñëwal dugg nga mos fii ceeb bi yàpp fii ceeb bi jën fii maaf fii supp kaay yow mi yow la ñuy waxal nga naan munoo bañ yow ndax yow parce que boo bañee da ngay frustré nit ki munoo bañ mais il faut ñu bi mais mais mais mën nga bañ a bañ Alfi sama frère daf ma doon raconté benn xaritam boo xam ne buy dem Touba ay teraamiseen lay naan neen ndax day gaaw a digérer Alfi yàlla ak sëñ Touba ñuy aar. fuñ dem xam nga xam nga xam nga man li may li may gën di metti mooy nit bu la dara dalee danga naan yàlla. Mm-hmm. yàlla ñuy aar ak te mënoon nga protéger wu mënoon nga protéger wu. mënoon nga protéger wu avant. xam nga kii lundi la commencé xiifal wax ak waxuñu kenn mu nga wax ak moom de maam Ndigal Fall laa lay tegal nii de. moo ñuy aar mais waxuñu kenn waxuñu kenn tamit nga dem te doo lekk. mais boo demee na nga lekk lekk yoo xamante ni mën nañ ko jaxase lépp lay boole xam nga duñ la tegal ngurbaan tey euh, tegal a daxin nga nga bëgg cee pare dem ci ngalax ga cere ak soow ñëw nga naan. fruit ñëw nga lekk xam nga. nga nga jaxase loo xamante ne bomb. moom à a lay nekk. Ah moom daal bi war naa ci yàlla nit ñi dinañu ñibbi bàyyi la Touba. moom daal li ma bëgg a wax mooy que. lan la ba suur. waaw Ndiaye li mënta ñàkk ñun daal xam nga kon konaaw ñun séeréer yi. Hmm. li nga xamante ni moo fa mënta ñàkk ba mënta ñàkk. mooy na am macaroni. Hmm. wala mu am <laughs> vermicelle. ak mburu wala nga jël nga jàpp ba tiin ñaar yooyu daal ñett yooyu daal bu fa bu fa bu mu fa manqué moom. nga jàpp lépp la waaw ñun yooyu rek la ñuy la ñuy jëfandikoo xam nga macaroni surtout ba bii daa baax ci ñun torop. Ndiaye ngi wax ci digestion bi. bijou ataaya nga xamante ni fii dañ ko faral di am naan ataaya bi saf sàpp ak mante. Mm. parce que bokk na ci ay euh, herbe yoo xam ne daf lay may digestion bu baax. Mm-hmm. donc Ndiaye del sàlloo ataaya bu fekkee danga nga bëgg loolu digérer ndax foo dugg mën fa xéewalu. Mm. del naan ataaya bu bëri bu saf mante. Mm-hmm. café Touba bi tam mën nga fa. nga xamante ni boo ko naanee am na ay euh, épices yu ci nekk lu ci mel ni euh, li saf ci café Touba mm. Mhm. nga xamante ni day nekk. Euh, xorom poole wala clou de girafe jar bi day sax sax nga xamante ni nga xamante boo ko lekk boo ko naanee euh, daf lay permettre daf lay permettre nga nga digérer mhm. xam naa ne paan bi nga xamante ni bijou dañ koy doon wax ci oto am na ay nit yoo xam ne ñu bëri dañuy paan nar a paan ci fiñ leen di dalal la ñuy dem dootuñu mën a yëngu ndax fa ñu tëdd la ñuy tëdd douche ba tëdd ba parce que xam nga nit intoxication tamit bu chronique du la bàyyi ci ñaari fan du la bàyyi ci ñett fan donc loolu daal jar na jar na bàyyi xel mhm. <laughs> intoxication yeeg jaare yeeg yëpp nit ñi ñoo koy def ñoo koy teg seen bopp parce que dañuy bëgg lu nekk ñu jaxase ko lekk mhm. ko nañu lekk normalement comme boo nekkee te bu ñu fàtte raxasu surtout waaw surtout raxasu euh, hygiène alimentaire ñun ñi di togg tamit ñuy raxasu wey di set loxo yi di set parce que ñi ñu koy euh, servir tamit dañu war a am bien-être ci seen ci seen wérgu yaram merci beaucoup Alphie ci hygiène alimentaire bi nga indi comme dañuy waajal màggal te nga xamante ne ñi fay regroupé wu dafay bëri bernde yi dafay bëri ku ci nekk di nga bëgg a ñam lu nekk mais nga def attention rek et puis surtout booy lekk nga raxasu bu baax ñiy togg tamit xoolaat togg yi bu baax comme ni ñu koy defee chaque année di la remercier bu baax xam naa ni moom euh, suñu mbokk jóobee ni comme ni ma ko doon waxee Mohamed Jo Diop sànq mm-hmm. ñoom ñi ngi xiifal instant yi en attendant bernde yi di ñëw euh, bon magal à à tous et puis euh, dem leen lekk pas comme Diobé ni def leen comme Ndiaye ni rek boo leen ko defee du ngeen am benn problème merci beaucoup Alfi ci euh, comment bien manger avant ñuy jàll ci anniversaire yi nga xam ne moom la ñuy jeexalee yeewu leen bi Pape Samba euh, dama bëggoon nga indil ma photo les petites gouttes comme ça ñu féliciter leen les petites gouttes nag benn association la boo xamante ne ñoom dañuy xeex euh, pour aider dugalaat leen ci biir kër gi donc ñoom dafa amoon benn concours boo xam ne dañu fa bokkoon waa EDF ñoo ko defoon dajale pour ñu voter leen pour que ku ci ëppale ay vote nga remporter vingt mille euros bi nga xam ne moom ngay mun a aider xale yi association en tout cas ñoom nag d'habitude vote yi ay treize mille votes la doon yam mais ren dafa am benn Euh, mouvement boo xamante ne daf ci am ñëpp jug pour jàppale leen ba vote yi dem na ba trent mille cinq cent votes ñëpp dañ leen soutenir ay stars sénégalaises yu ci mel ni Youssou Ndour ñun ñi waa yeewu leen jàppale nañ leen defal leen ay messages ci Facebook Twitter réseaux sociaux yëpp partagé ko pour que nit ci mun a dem voteel leen euh, ku ci mel ni Bouba DJ Snake Omar Sy Jabaram ñoom tamit dañ leen euh, dañ leen soutenir bu baax ba invité leen avant première film bu Omar def demain tout commence yooyu yëpp dañ leen doon soutenir yaa ngi ci biir ci soutien bi donc je pense que ñëpp a leen jàppale ñi am trait ak Sénégal ñëpp am liaison ak Sénégal ñëpp dañ leen jàppale jël affaire yi posté ko def ay vidéo posté ko ba nga xamante ne même bi ñu leen gagné ñun puusaat nañ euh, waxaat nit ñi nañ leen voteel ba ci muus bu réew bi nga xamante ne ba finalement association bi leen jiitu woon dem nañ ba dépassé ko ci ay vote muy euh, solidarité bi am tout le temps Sénégal mm-hmm. bu fekkente ne dañu war a jàpp man voilà ñoo ngi nii dañu war a jàpp ci benn affaire nit ñëpp di jógee jàppandoo ci man loolu daf ma neex bu baax te actuellement permettre nañ association bi ñu am 20 000 euros bu ñu mën a jàppalee taalibe yi surtout surtout et puis ils ont utilisé les sociaux mm. actuellement mënoo fi def benn euh, campagne de solidarité boo mm. xamante mënoo ñoom jaar nañ ci waxee lim ñu bari bari na ñi nga xamante ni jàppaleñ ci seen combat bi di wax ni loolu rek lii rek moo fi am ah jàppalante parfois du ñu xam yan moo la ñuy jaar mais bu ñenn ñi eh, organiser woo am benn initiative bu bu mag bu ñuy teg ñu ñu je ñu bari dañ ci ñëw jàpp. Ndiaye mi ngi wax jàpp bokk na ci effectivement gis naa ko ci ci yëf yi bàyyi na ko suma lay def ci ah, ah, ah, ko <laughs> que man déjà sama benn xarit ku ñu wax jabaate moom moom ma ciy dugal ñooñu toog boobu yàgg na ñu toog di ci waxtaan nii rek mhm. mais bu ma tuddalee affaire xale rek laa ne ko maa ngi ci biir ndax xam nga ñun suñu wasila euh, sunu sunu ku baax ki sëriñ Saliou Mbacke dafa dafa dafa dafa farlu woon lool ci xale yi loolu te kooku boo ko dee rey moom lépp lu bokk ci xale rek dañ ciy taxaw def ci lépp loo mën te ñooñu dañoo gën a jar a jàppale daal mhm. waaw man nee naa sax nañ ko waroon def dix mille mu gën a mu. ñoom ñu ngi ci vingt mille de wala ñu leen beneen dix mille euros leen dix mille euros. muy trente mille euros. ndax leen jàppale rek doyul. dafa am solo loolu daal. en tout cas petite goutte ñoom li ñuy liggéey ci xale yi ci mbedd bi ak taalibe yi dafa am importance torop man ku tudd Marie Sène moom moo ma ci boole moom ci biir association bi la nekk day toog ba xaaju guddi jour bi ñu leen dépassé boo gisee message de panique bi ma envoyé bijou dépassé nañu dugg na fi génn ci biir combat yu mel nii. et saluer gañe nañ gañe nañ ba EDF war nañ leen recevoir pour remettre leen euh, somme bi nga xamante ne moom lañu war a jël mun ko dimbalee taalibe yi nga xam ne ñi ngi Sénégal ak xale yi nga xam ne ñi ngi nekk ci mbedd bi ba am euh, un avenir meilleur parce que tam euh, xale place am du mbedd bi. oui li ci des mooy mu am suivi rek. comme ni ko waxee am nañu gañe nañ mu am suivi xool ba nga xamante ni nañ ci mën a jàppale taalibe yi. ñoom déjà commencé woon nañ en fait doon ko def. donc lii ce sera projet boo xam ne nañ ko teg loo xam ne comme ni ñu ko defee élan de solidarité yi fexe fexe fexe ba vraiment. mbedd bi. a parce que Alfi ni ma ko waxee place xale du mbedd bi donc beneen élan de solidarité boo xam ne soxla naa ci sénégalais yëpp muy pouponnière Mbour bi bi comme ni ma koy waxee mois de décembre lay dem mhm. ma waxaat leen rek juste xale yi soxla ñu couche meew yére jouet médicament euh, ay kay ñuy jàngee parce que foofu xale yi fa nekk entre zéro mois un mois ba douze ans ñi ngi fa donc euh, soxla nañ lépp lu xale di soxla boo leen amee seen kër euh, ay xale di ngeen xam xale lan lay soxla pour ñu jàppale leen ci aussi bénévole yi nga xamante ne ñoo leen di aider ñoom soxla nañu ku leen soutenir côté financier soxla permettre ñuy jóge seen kër ba ci pouponnière ba mhm. ndaxte souvent euh, dañuy yéex a egg te bu ñu yéexee egg xale yi du ñu am kenn ku leen di surveiller mhm. donc mois de décembre laay dem incha allah année dernière soutenir woon ngeen ma mhm. pour ma dem anne bi tamit ma leen di ñaanaat rek ngeen jàppaat ci parce que l'union fait la force et que Sénégal gis naa ni ñuy jógee ci kaw solidarité femme euh, nga mayaale ma rek ma sànniwaale ci waa No Stress ñoom dañuy faral di def ay don tout le pour euh, ay taalibe wala boog malade yi nga xamante ne ñoom nekk Dantec alors dañoo organiser au fait le 26 incha allah novembre ci la ñuy seen 4 ans et chaque fois dañuy dajale ay dons yu bëri di ko jàppale ñi nga xamante ñoo nekk ci hôpital Dantec suñ ci mënee jàpp. fan la dajalee euh, seen ay dons numéro téléphone bi laay joxe. joxe képp ku nga xamante bëgg na leen jàppale soo woowee ki nga xamante moom mooy Jibril Coy wala Sanu. Sanu euh, a xale yi nga xamante ne ñoom lañu fas yéenee seeti mhm. malade yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Dantec alors numéro téléphone bi di 77 341 41 41 77 341 41 41 incha allah 4 ans yi à chaque fois bu ñuy fêté chaque année dañuy jël don yëpp yu bëri dajale ko dimbali képp ku nga xamante ne xaj na ci. voilà Sénégal nii la rek ku ci nekk ak sa combat ku ci nekk ak fi ngay jàpp bu ko defee dinañ dem ba problème dootul am te loolu la ñuy ñaan yàlla voilà na ku nekk jàpp daal. comme ça mu mun a jàppal ma jàpp la comme ni ko Alfie waxee. donc ñu jàll ci anniversaire yi avant ñuy euh, tàggoo ak ñi ñuy seetaan anniversaire bu njëkk bi happy birthday à. Amady Thiam moom mooy fête anniversaire am Amady dem ba Tukulër ku bind lii nee na happy birthday à Amady Thiam Demba Toucouleur Ale Racine Bour Guédé heureux et enjoy your de la part de Nafi Diop Nafi nag souhaité nga ko joyeux anniversaire te fowoo deuxième bi happy birthday à Ndeye Kodou Gakou di Coco qui fête ses deux ans elle toute mignonne Coco on te souhaite tout le bonheur du monde de la part de maman Mayna et papa Babacar et toutes les tatas et tous les tontons yi nekk ci yeewu leen ñu ngi lay souhaité joyeux anniversaire et longue de la part de ta grande sœur Mam Fatou et ta famille on t'aime moom tam bébé la ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire et une longue vie am nañu fi beneen anniversaire happy birthday à Adjana Diallo on te souhaite la totale de la part de Dream Team donc Adjana mi ngi noonu elle est toute jolie euh, happy birthday à Mam Sokhna Ami Meng longue vie santé donc longue vie à toi elle aussi c'est un petit bébé tout mignon donc longue vie et euh, happy birthday à toi happy birthday à la reine Gaye de la part de maman Anta Bada donc Gaye reine reine nga yow maman de sa maman moo la koy souhaité happy birthday à Khady Sané depuis Fass de la part de sa maman Binette oh tey bébé yi anniversaire ndeysaan macha allah longue vie à vous. beneen anniversaire bi ñu jàll ci happy birthday à Awa Thiam qui fête ses un an longue vie santé de la part de Maman Daro Dieng et toute la famille Dieng depuis Italie donc ñoom ñoo koy souhaiter un joyeux anniversaire Apulaay tam yónnee nañu benn anniversaire mais heure bi nga ko yónnee c'était trop tard pour mettre la photo mais dañ koy souhaiter quand même happy birthday à Abi euh, de la part de son père Ousseynou Laye et son époux Apulaay ñoo lay souhaiter en joyeux anniversaire donc dommage que photo bi teeloo ko nañ jéem a xool bu ñuy defaat yeewu leen nan nañuy def ba jàllale ko yeewu leen bi euh, anniversaire yi ci la yeewu leen bi di jeexee donc petit tamit di ma envoyé message lan la anniversaire anniversaire kan la anniversaire kan la nee nga ko maa ngi koy lire photo bi jàll na ndey koddu gàkku di koko ah moom jàllu na bi jàll na yow yow yow yow petit jamila bi rek lañ ci yokku voilà dañoo amoon benn euh, cat bu sew rek boo xamante ne daf ñu dab mais fi mu ko dalee garaawul man maa doon lan. Alfi man en direct laay ndekki xiif moom bu ma ko xiifee fii laa koy lekkee aw ma ci sentiment moo tuuru ci kii bi ngeen baal ma sama café gi la donc euh, tàggoo moo ci desoon Pape Samba comme def nañu anniversaire yëpp ba pare ci message am bi mu ma stressé ndekete jàll na ba pare kii tam tata Jamila bi lañ ci wisul woon tata Jamila aussi te souhaite un joyeux anniversaire sonnal nga nit ñi torop yow buñ jógee màggal dañ lay dàq yeewu leen dootoo ñëw dégg waa kañ feneen yo la yóbbu Isou Khadija dafe donc ñu bàyyi leen ngeen tàggoo Alfi Sànk yow laa joxoon. waaw ah, mais Bijou comme ni ñu koy defee chaque suba di tàggu ñëpp di remercier Ndeye Coumba Onglerie des VIP ma nga fële ci Liberté 4 pour la coiffure su ngeen bëggee ci perruque bi mën ngeen ko woo 77 397 82 82. merci Bijou à la semaine prochaine. à la semaine prochaine Alfi Fama. Euh, merci beaucoup Ndeye Comba comme ni ko Alfi gërëmee léegi rek moom mu ngi nekk Liberté 4 mooy jaar ci suñu bopp yi numéro téléphone am di 77 397 82 82 di soutien moom mi nga xamante ni moom mbokk ci groupe Dabrens Family. Mhm. donc maa ngi koy souhaité en heure ménage. tey Fama toogaay bu rafet la toogee. Mhm. Mhm. dëggantaan. toogaay bu jekk. pingi ay cër. <laughs> pingi ay cëram <laughs> lu xew. moo ma jaaxal. <laughs> Pape Cheikh me <laughs> léegi dañ lay jox paas nga dem États-Unis fekk ko fa dégg il me manque non jaraluma ko nag. bàyyi bàyyi bàyyi rek ñu jox la paas euh, yow dem rek. dara jaraluma bàyyi rek ñu jox la paas wala ñu dugal la ci jet privé bi nga nag nank dem ci moom daal di toog comme ça sax yow ñu xaw laa na maale balaa ngay ñëwaat. merci beaucoup à toi Fama rendez-vous lundi incha allah dans yeewu leen Ndiaye ma bàyyi la nga tàggoo. non Ndiaye mi tàggoo. Ndiaye ah waaw yow yaay tëj baal ma de baal ma àq Ndiaye waa dëgg la di amaat mbégte bu baax ak contentement bokk ak yéen plateau bi fii ci yeewu leen di ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi ci yoonu tubaab bi rek mm. yàlla na nga dem ci jàmm egg ci jàmm dellusi ci jàmm te yeewu leen bi nag maa ngi koy may spécialement sama yaay sama xarit ma madame euh, madame Touré di ma jigéen gay mm. borom Salimto maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu ak Madou ak waa Salimto yépp merci merci beaucoup donc euh, may remercier aussi tey ki ma ñëwal sama waa koñ la moom mi ngi tudd Daba Dabis création mi ngi nekk euh, Parcelles Assainies unité 3 ak Yoff Apix aussi am na yeneen yoo xam ne defaral na ma ko mi ngi ñëw photo itam di ngeen ko am téléphone am 77 685 49 75 76 864 47 79 Daba Dabis création am na yeneen yuy ñëw yoo xamante ne daf koy defar day def réapporté donc mun ngeen ko woo dem fa di ko remercier bu baax ci euh, Ila Touba la la lañ tuddee ñëw bi pour préparation màggal bi donc merci beaucoup de nous avoir suivis rendez-vous lundi inchallah ma bàyyi leen ak Ndiaye mu tëj comme ni mu koy defee tous les jours. voilà merci beaucoup bisous à Pape Cheikh. oui bisous. Messieurs. nam naa la torop soof nga ma torop waaye namm naa la torop <laughs> ok gaaw merci beaucoup à toute l'équipe technique Pape Samba Tok mu Serigne Fallou Ngala Petit mu Efat Khadim Cissé Ibou Cissé Gervais Yawo caméraman TV5 <laughs> Mama Diallo Petit mu Efat Petit mu Efat encore <laughs> Mama Diallo la maquilleuse maman merci beaucoup et l'équipe di Yeewu Leen mu doon rendez bu lundi beneen Yeewu Leen bi demee Ila Touba ñiy ñaan yàlla ñuy dem ndànk dal ndànk bon magal à Thank you